salli ala sayidina waliyina xutwatina xabibina shafiina wa alihi wa sallimi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mboolem téléspectateur u leeral tv ñoo ngi dellu siwaat ci seen jotaayu xam-xam ak taalibe gi am guddi àjjuma ju jot ci waxtu wi di leen nuyu nuyub lislaam bi ñu bokk ñun ñëpp muy nuyub taxiyatan min hindillahi mubaarakatan tayiba di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi nuyu mbooleem kilifa yi seetaan télé bi yëpp waaye di nuy nuyu itam waa Leeral TV tàmbale ko ci bopp bi muy Birahim Touré ñoo ngi koy nuyu bu baax alaaj Birahim euh, di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal gudd fan ak wér tey sunu borom ñoŋal liggéeyam waaye ñi ngi ñaanal waa tele bi yëpp nag sunu borom def fi tawféex. dolli fi jàmm dolli xéewal yi dolli mucc gi te defal ko képp ku ni seetaan waaye maa ngi beral nuyoo nag sëriñ Saliou Samb mu sëriñ Béthio moom mi nga xam ne moom laa feggool ci émission bi saa su ne muy jàngale njàngale mu rëy ci wàllu xam-xam Serigne Saliou maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax te di la ñaanal jàmm di rafetlu sëb liggéey ni ko waa réew mi rafetloo mm-hmm. di rafetlu it sa taxawaay di la ñaanal sunu boroom guddal sa fan te wéral say cër ndaw nga say at bariwul waaye taxawaay wii nga xam ne moom nga taxaw ci réew mii exemple la ci mbooleem seen ku bëgg lu baax waaye exemple la ci mbooleem seen ku bëgg a baax ndax ay nit a ngi baax di ko jaare ci say kàddu kon nag lool yi ñu ngi la ciy ndokkeel bu baax te di la ñaanal waaye di nuyu uh, wàkk sëñ Mor si Cissé gépp mm-hmm. uh, ca njaareem jërëjëf Serigne Saliou. wallaahi ndeysaan jërëjëf ahansanil baaqi mina sheytaani fi kulli majlisin wa fil awtaani xibaadati btadaxtu bismillahi wa huwa kafaaniya zawil malaahi wajjaxtu kulla alhamdi wa shukuri lil maliki rahmani wa shakuri salli wa sallim wal tubaarik sarmada xalal si sammaytahu muhammada wa alihi wa sahbihi wal anbiya waskurtihi almuqaddamati rabbiya wasarax biha sudura man taxallamu sharhan bihi laa tax taxtarihim salamu barkeb Sëriñ Tuubaa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki réew mi ak bitim réew mboolem téléspectateur yi topp télé bu mag bii di leeral TV rawatina nag ci seen jotaayu bopp bi ngeen taamu di jotaayu xam-xam akuk taalibe di ko ànd ak ñu guddi àjjuma ko jot ci waxtu wi noo ngi leen di waxati asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Euh, laaj Boubacar ni nga ko waxee rek noo ngi tàmbalee sunu nuyoo ci kilifa ak euh, jotaay bii di télé bi laaj Ibrahima waaye ak mboolem ñu koy jàppale ci liggéey bi rawatina jamono jii ñi féete ci technique bi ba tax ngeen mën a jàkkaarloog nun waa régie bi muy waa régie bi ñoom Daouda ñoom Daouda ñoom Alioune Badara ñoom Alioune Badara laay ndeysaan ñoom Mohamed ñoom Mohamed ñoo ngi leen di ñaanal ak wér su borom taxawu leen amiin ndax ñoom ñoo tax kat téléspectateurs yi mën a jàkkaarloog nun lépp di leer <coughs> waaye alaaji Boubacar noo ngi nuyu jëwriñ alaaji Daouda Faye alaaji Daouda Faye jëwriñ universel wallaay moom Serigne Béthio yàlla na ko yàlla dolli wér yàlla na ko yàlla dolli wér di soppee jotaay bi nag te ko lool kay tey nuyoo jotaay bi yëpp ak soppe yi dama ko teg ciy loxoom waaw bu ko defee mu séddale ñi ci des ñëpp. am ndeysaan xanaa noonu la ñuy daal di nuyoo Sultaan Fall. Alaaji Sultaan Fall. moom nag day taxaw taxawaay bu am solo. taxawaay bu ama am solo sax. ndax ndeysaan moom daa ubbi groupe WhatsApp. waaw wallaay wallaay te ko soppee jotaayoo xam-xam. ak taalibe wallaay. ndeysaan di di di di di di bëgge jotaay bi saa su ne. bëgge lool ak ñam ko àndal. ak ñam ko àndal ñoo ngi leen di nuyu. ndeysaan wallaay ñu ngi koy nuyu bu baax. day ñaan suñu borom barkeel seenub liggéey ñoom it. amiin yaa rabbal ndax bëgg lu baax rek ak bëgg yaatal lu baax. moo tax nuy doxe doxin woowu yi. dëgg la waaye Alaaji Babacar maa ngi lay nuyu bu baax te di la fay am nuyoo te di ñaanal itam nag ñaan yi nga nu ñaanal yàlla nañ ko suñu borom boole defal. amiin yaa rabbal mbokk taalibe yi ak mbokk jullit yi ci àddina si yëpp ñoo may jottali seen i cant. ak seen i ñaan ki sa jëmm ji. ak taxawaay bu am solo bii nga xam ne taxaw nga ko ci liggéey bi. muy ci lislaam ji muy ci taalibe gi. Mm. njàngale moo xam ne ñëpp ngi ciy jariñu. ñoom ñëpp noo ngi lay ñaanal nag fan wu gudd ku wér ak sagu. amiin ba yeggale sa naal ak sa yéene ci liggéey bii ngay bi. te jaare ko nag ci amiin nga yeggale kook sa sago. amiin kon El Hadj Boubacar kàddu gaa ngoog. jërëjëf Serigne Saliou Samb ci nuyoo bu am solo boobu. kon nag bu ko defee Serigne Saliou ñu daal di tàbbi ci jotaay bi. ñu tàbbi ci jotaay bi waaye nga baal ma xam naa ne El Hadj Mame Moussa de ma ko joxut am nuyoom. waaw tey jii mën naa doy waar. ah ndeysaan Mame Moussa Samb sama wallaay sama mos. ah ndeysaan maa ngi koy nuyu ak njaboot ga. yàlla ko yàlla dolli wér. ah amiin wallaay <laughs> ndeysaan. <laughs> wax nga dëgg de yàlla ko yàlla dolli wér. ñu ngi nuyu yaa nag bu baax a baax. te di ko ñaanal ak wér moom itam. waaw ah, moom itam day soppee jotaay bi eh, jotaay bi du ko tardé. waxtu bu nekk mi ngi koy topp moom dalaa soppal boppam. Ah, maa ko maa ko maa ko raw maa ko raw. soppal boppam. maa ngi koy nuyu di nuyu njaboot gi ñoom soxna Faati ñoom ñëpp rek. wallaay ndeysaan te di leen ñaanal ak wér. jërëjëf Serigne Saliou ci nuyoo bu am solo boobu. Mm-hmm. kon nag euh, jotaay bàngoog réew mi yàlla fi yàlla def jàmm. amiin kon nag tey ñu ñëw nag ci suñu temu tey. suñu temu tey. temu tey nag mel na ni. Euh, soppee jotaayu xam-xam ñoo ko choisir. ñoo ko choisir. ndax euh, ñoom ndeysaan dañoo am cir ci jotaay bi. Mm-hmm. comme nag yàlla def na saa su ne ñu ciy wax seen i xalaat di ci contribuer. Mhm. Ah, tey nag ñoom ñoo choisir temu tey jii. wallaay ndeysaan moo tax thème bi ñu tuddee ko. le guide spirituel. wallaay ndeysaan guide spirituel nag buñ ko waxee mooy sëriñ bu mat sëriñ. sëriñ bu mat ab sëriñ. sëriñ bu yóbboo ci yàlla. mooy sëriñ bi le mhm. guide spirituel. Mhm. li tax nag mooy sëriñ Saliou. Ah, dañoo dajale ay wax yu bari. ay wax yu bari biñ ko dajalee. ñu ñëw nag laaj ko ci jotaay bi. Mm-hmm. daan ne ñoom kat dañoo seetlu ni réew mii di Sénégal. Mm-hmm. Euh, dañuy wax ni plus de quatre vingt quinze pour cent. ci ñi mm-hmm. composé réew mi. maanaam ay jullit lañu. wallaahi maanaam Sénégal téeméer boo jël. mel na ni juróom-ñeent fukk ya ak juróom. téeméeri nit yoo jël. juróom-ñeent fukk ya ak juróom. ay jullit lañu. ay jullit lañu. te ci biir jullit yooyu. daanaka. juróom-ñeent fukk yëpp. Mhm. am na nañ ay sëriñ. ay taalube la ñuy tudd. Mhm. maanaam dañoo c'est l'islam gii ñu dund. Mhm. ci biir l'islam. dañ cee bokk ci ay tariqa. am ci ay kilifa ci ay kilifa. ba tax na. ne nañ léeg-léeg nag ci pénc mi. dañuy dajeek ay nit yooy dañuy laaj ay ay laaj. ne leen waaw yéen kat sëriñ sii ngeen topp mhm. moo xam da ngeen a jébbalu ci ñoom mhm. moo xam dañ leen a jox wird mhm. moo xam rapport bu ngeen mën a am ak sëriñ sii waaw ndax sëriñ sii jaroon na ngeen leen di topp maanaam ndax am sëriñ sax wax dëgg yàlla ndax jaroñ na ko ndax bari na njariñ ndax bari na njariñ ne buñ laajee lu tax ne léeg-léeg ñu jox leen nag ay exemple ay exemple ne leen ah yéen kat bu fekkee da ngeen a amub sëriñ xëy manqué dépense yaa ngi dégg comme sëriñ ma moom am ko du tax am dépense. Mhm. moo kon ndax amoon sëriñ jaadu na. Mhm. boo wutalul sa bopp dépense daal doo ko am. waaw yow boo wutalul sa bopp dépense doo ko am. kon loolu la sëriñ bi jariñ kon loolu la sëriñ bi jariñ. Mhm. comme am sëriñ bi. ñàkk dépense. ñàkk sëriñ bi it ñàkk dépense. kon ndax am sëriñ bi ah, maanaam. am am na njariñ daal am na valeur ajoutée. am na ñuy laaj loolu. ñuy laaj loolu. léeg-léeg it nga dégg ku ne la waaw. nee na léeg-léeg ñu dégg ku ne leen waaw yéen. yéen ñii nga xam ne da ngeen am ay sëriñ ne moom ngeen moom ngeen gëm yaakaar leen teg léeg-léeg nit def dara. Mhm. wala ñu tooñ nit sax dugal ko kaso. Mhm. comme sëriñ ba moom mënu laa génne ci kaso bi. waaw xat-xat ba bay xew yomal xiyaam. moo ndax mhm. sëriñ ba mën na la faa génne. moo ko la mënta dindi ci sa tolof tolofi àddina. waaw naka na lay mën a génne ci sa tolof tolof alaaxir. mu ngi noonu ñuy laaj loolu. ñuy laaj loolu. léeg-léeg ñu laaj leneen. léeg-léeg xam naa laaj yi ëgsi na. waaw léeg kay nga dégg ko ni waaw. nan ngeen di amee sëriñ bi nekk ci ay jafe-jafe. ak i xat-xat yoo xam ne du leen ci mën a génne wallaay ndeysaan nga xam sa jafe-jafe yooyu yaa ko lijjantil sa bopp sëriñ bi du la tee feebar sëriñ bi du la tee feebar mhm. nee na sëriñ bi du léeg-léeg nga dékkun la waaw sëriñ boo xam ne mënu laa jox kër ci àddina waaw waaw yow farale location ngay am waaw ñu lay génne ñu lay génne nga xam ne ndeysaan da ngay yaakaar sëriñ bi ndeysaan ba weer dee wallaay ñu génn la ci biti ñu génn la ci biti nga xam doo am loo fay lu yaas <laughs> nga xam ne loolu rek tax ñu génne wala nga ànd ak sëriñ la mën a jox pàkk ci àddina nga xam ne pàkk yi ci ko moom mm. nu mu la mën a joxe pàkk ca àllaaxira nga xam ne pàkk yooyu yàllaa ko moom nga xam ne yàllaa ko moom waaw yooyu nag nga dégg ñuy laaj yu mel noonu mm-hmm. léeg-léeg ñu sëriñ boo xam ni eh, eh, boo ngeen amee jafe-jafe yi àddina ko mën a régler déedéet da leen di seetaan mm-hmm. léegi lan ngeen di doy sëriñ yooyu yëpp. wallaay ndeysaan léeg-léeg nga dégg ñu ne tey noo jaamu yàlla rek. Mm-hmm. Eh, te te te jàpp suñuy wayjur sëriñ. Mm-hmm. mel ni wayjur day day day tee amuf sëriñ. wala sëriñ day tee amu wayjur. Mm-hmm. xam nga amuf sëriñ. teewut a fonk sa wayjur déedéet teewu fonk sa wayjur it teewut a amul sëriñ ndax bokkuñu ay rôle déedéet alxuraan daa tudd wayjur tudd sëriñ léeg leen nga dégg ku ne liggéey sa alal ba mu leew la doom mm-hmm. amoo koo koy jox ku dul sëriñ bi te sëriñ ba nga koy jox ay kër mm-hmm. la ciy tabax mm-hmm. ay oto la ciy jënd di ci solal ay doomam la ngay jox sëriñ ba joxoon ko sa waajur moo ko ëpp doole ndax waajur a féete kaw yaa ngi dégg léeg nga dégg it koo xam ni Euh, danaan la wax dëgg yàlla sëriñ bi ngay topp fa mu mhm. teg njabootam tegu la fa tegu la fa ak yu demee noonu ak yu mel noonu nga xam ni kon mhm. bari na ay laaj yoo xam ne dafa jëm ci loolu wallaahi wala nga dégg koo xam ni danaan la Euh, sëriñ bi nga topp mënu laa musal ci accident yi àddina accident yi ko accidenté ci àddina mm-hmm. léeg-léeg mu ne la nga gëm ko sa kër lakk mm-hmm. koo xamante ni kër ga sa kër àdduna daa lakk wallaahi mënu laa musal ci safaras àddina wallaahi moonum la mën a muccalee ci safaras àllaaxira wallaahi ak yu demee noonu léeg-léeg nga am jafe-jafe nee ñaan loo ko ci lu yàgg doo ko gis waaw ñu ne kon léegi lu sëriñ ba jariñ lu sëriñ ba di jariñ wallaahi yooyu nag xew ci pénc mi mm-hmm. ñu di ko waxtaane mu nekk actualité ba tax euh, mbokki soppee jotaayu xam-xam téléspectateur jotaayu xam-xam yépp di ko suivre amaloon ay laaj yu jëm ci yuy demee noonu. Mhm. daa taxoon nag kon ñu choisir thème boobu. muy la guide spirituel. wallaahi mu mel ni guide spirituel nag buñ ko waxee mënoon nañ ko waxtaanee nu ne. Mhm. waaye wet gii ñu ko jaaree. Mhm. wet gii lañ ko lañ ko choisir tey. kon li ci njëkk ñooñu. nga xam ne ñooy waxe noonu ci ab sëriñ. waaw ñoom ndax li ñu wax bokk. des cee war a bàyyi xel. ndax senegal kat ñëpp ami sëriñ. donc c'est un débat qui intéresse pratiquement tout le monde. ñëpp la intéressé. ndax Sénégal dañoo fonk suñu kilifa yi ba. Mhm. gëm gi ñu gëm sëriñ. Mhm. muy muy sëriñ bu mat sëriñ. Mhm. yamat yamaleewuñ ko sax ci suñu jaamu yàlla. waaye dañ koo dugal ci suñu aada. suñu aada tey mbaxane moo ma woon fii Sénégal. mbaxane moo ma woon. ma wax la mbaxane mii ki koy sol. Euh, à quatre-vingt-dix-neuf pour cent. Mhm. ban tariixa la bokk. wallaahi nga xam ni kon gëm nañ sunu sëriñ si. Mhm. ba gëm gi ñu leen gëm dañ koo boole ci sunu culture muy sunu col ko. wallaahi ndax l'islam moom boo xasee sol lu yiw rek. Mhm. l'islam respecté na. wallaahi wallaahi léegi boo ca boolee nag solo solin woo xam ni. ku ko gis xam ne yow murit nga. sëriñ tubaay sab sëriñ wallaahi wala yow tiijaan nga cheikh mm-hmm. ahmad a tiijaan yi mooy sab sëriñ mm-hmm. wala yow xaadir nga mm-hmm. yaa ngi dégg cheikh abdul xaadir jeylaan yi mooy sab sëriñ wala yow ab ñaseen nga maam baay ñas mooy sa sëriñ wala yow ab laayeen nga yaa ngi dégg nga xam ni boo ma wonee mbaxana ma ngay sol ma ne ma wax la tarixa bi nga bokk soo ma wonee kurus gi kurus gi ngay wér de nosin wi nosin wi rek mën naa la ci wax yow foo bokk waaye léegi-léegi day a it fi nga bokk. day wane it fi nga bokk. wallaahi ndeysaan. kon ñu fonke noonu ab sëriñ. Mhm. ba ba te maaseendoo noonu ci Sénégal. Mhm. suñ dee laaj laaj yu mel nii. Mhm. day mel ni indi ci ay leeral jaadu na. jaadu na ndax léeg kër goo dugg ci noonu. boo boo laajee seeni doom seeni tur rek xam fu mu bokk. kenn ku ne say sëriñ ngay tuddee say doom léeg-léeg nga dégg ku ne la waaw sëriñ ba <laughs> moom yow yaa koy tudde ay doom waaye moom du la tudde doom kon <laughs> i taalibe li ci ëpp moom mhm. duñ tudde sa baay doom déedéet yow sax mhm. maanaam dañ lay jox saw tur mhm. boo amee doom ñu jox ko tur am na sëriñ soo xam ne yamatuñu ci nga leen di tudde doom waaye sa sa turu doom yow lañ koy laaj yow lañ koy laaj nga xam ni ñoom ñi jur duñu tudd dañuy ñëw ba ci fekk yow sëriñ bi laaj na tur. nga ne tudd nga nangam. Mm-hmm. nga xam ni yow amoon nga sañ-sañu tudd sa doom. léegi nag yooyu bu xewee ci pénc mi. Mm-hmm. defe naa waxtaane ko day daal di doon. actualité day daal di jaadu day daal di jaadu. léegi kon tomb bu njëkk bi ñuy wax. Mm-hmm. waaw kon. ndax sëriñ loolu lañ koy doyee ba mhm. ndax sëriñ dañ koy doyee muy joxe dépense mhm. wala ndax sëriñ dañ koo doyee mu ñuy joxe kër mhm. wala ndax sëriñ dañ koo doyee bu ñu waree dugg kaso bañ a dugg wala wala wala wala lan wala kon boog lu ñuy doyee sëriñ <laughs> waaye jërëjëf El Hadj Boubacar <laughs> wallaay laaj bi am na solo tey débat bi ngeen di day débat actualité di débat bu nu amal njariñ ñun ñëpp nag hmm. ñun ñu koy wax ak ñu koy seetaan ndax ñun ñëpp ñoo ngi biir loolu ndax ku ne ci nun rek am nga sab sëriñ dëgg la nit kenn du ko laal ndax moom da nga fonk ko a hmm. nag dana daal di intéressé nag ah, alhamdulilah rabbil alamin wallaay ndeysaan leen ci sant bu baax ñoom téléspectateurs yi ak soppe jotaay bi hmm. waaye alaaj Boubacar li ma njëkk a gis ci salaaj boobu mooy ñoo ngi seen nattukaay yéen nattoo moo baaxul ah, nattewuñ ko daal ci àndaar baax dëgg la maanaam loolu ñuy wax miisaan mhm. mooy li nu natte mhm. nekk sëriñ kat bu fekkoon ni lii la kon du ko jar mhm. comme léeg léeg lii lépp mënalul leen ko lu ngeen koy doyee lu ngeen doyee seen booba la daanu wallaay nag gis nga loolu ñu natte noonu buñ ca nattee yàlla képp duñ ko gëm ah wax nga wax nga dëgg de <laughs> waxuma sëriñ de ah, ah fi ne yooyu yëpp buñ ci nattoon yàlla daal mboolem yi natte yëpp ba xool ni loolu daal ku ko def ah. mu toob sëriñ uh-huh. ku ko mënut mu toob sëriñ yàlla mi sàkk sëriñ bu nga ko ci nattee sax weddi yàlla wallaay wax nga dëgg de <laughs> moo tax léeg-léeg nga gis koo xam ne la muy weddi la muy nattee moo baaxul wax nga dëgg ndax nattukaay dafa baax boo xamul nattukaay du mën a dem ndax alaaji Boubacar kini la hmm. baa ngi nii boo ñàkkee dépasse mënut a fexe ba am ko waaw te yow boo ko amee wuti dépasse hmm. boo ko amul wuti dépasse kon yow wut ko daal ay caaxaan dong la hmm. waaw alaaji Boubacar kooku nan lay def rasulullah wax nga dëgg de ndax léeg-léeg ñu ñu teg la ay tolof tolof nga xam ni léeg-léeg ci tolof tolof lay ci ay lañ koy def ñu ne ndax sëriñ mënu laa génne ci tolof tolof yi gis nga buñ ci tudd bu ne yàlla seq na ko ay nitam dëgg la ñoo xam ne moom moo waxal boppam ne ñii ay nitam lañu mm-hmm. buñ ci tudd bu ne yonent bi seq na ko ay nitam di seenub sëriñ moom mm-hmm. xam nga ne yàlla mat na buur waaw sëkk kenn mën hmm. hmm. ne yonent bi a xanaa kon doone kon yonent bi matutub sëriñ wala nga daanu premièrement mooy léeg nga gis ku ko natt kon ci wàllu financement waaw nan nga mën a amee sëriñ te yaa ngi nii amoo dépasse dëgg sa poche day widd dëgg nga ne sab sëriñ mat na sëriñ kon loo koy doyee hmm. Ah, alaaji Boubacar ki gën ci mbindee fi ko mu ah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wallaay ndeysaan ahmaduna rahmatuna hamiduna nihmatuna mahmuduna farhatuna wa uh, wal joodu wal joodu musridiyan nga xam ne kooku mooy yërmande mbindee wallaay wa huwa akmalul wara xalqan wa xulqan sahara <laughs> wal mislu xattu lam yura wa lam yura fi siyami wallaay ndeysaan xam yàlla nee na moom dama leen ko xéewale laqad manna allahu alal muminina wallahi <laughs> isbaxata fihim rasula min anfusihim wallaay ne yatlu alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yuallimuhul kitaba wal hikma daane wa in kaana min qabl fi daali mubin mm. yonent yàlla Muhammad kon ku ko gënal yàlla amut déedéet moo gën mbindeef yëpp te ah. moom moo tax ñu sàkk mbindeef yàlla may ko lu mayul kenn may ko lu mayul kenn wala inna ahlalna laka aswaajaka laati aatayta ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa allahu alayka wa banaati xammika wa banaati xammaatika wa banaati xaalika wa banaati xaalaatikal lati haajarna mahaka wa mraatan muminatan in wahabat nafsaha linnabii inna arada nabii ay yastankihaha xaalisatan lakka xaalisatan lakk min dunil muminin de alam nashrah laka sadrak wa wadaxanaa xanka wisrak allasi anqada zëhrak wa rafaxanaa laka laka zikrak wallaay fa inna mal moo am inna fataxanaa laka fatxan mubina li yaxfira laka allahu maa taxaddama min sanbika wa maa taqara wa yutimma nihmatahu alayka wa yahdiyaka siraatal mustaqima daana wa yansuraka allahu nasran azizan waaye xam nga ni kookoo foor ah kooku de loolu kenn fekk ko a xanaa kooku dara mbër ta jeex ba baa yëg nga ne daana xëy suba ba ngoon doom ci lum taal këram moom Muhammad Rasulullah moom Muhammad Rasulullah te teewul yàlla yàlla te teewul yàlla yàlla muy xaritab yàlla di soppee ba pare yàlla na wallahu yarzuqu man yasaau man yasaau bi xayri xisaabin bàyyi nga ne du benn fan du ñaari fan mën na koo tegle weer. mën na koo tegle weer du am dépense. du am dépense ba pare naan gars yi leen yàlla mooy joxe dépense. yàlla mooy joxe dépense gëm leen ko te jaamu ko. yàllaa yor wërsëg gi. Mm-hmm. te Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam daan romb sax ko waaw nii nga ñàkk dépense teg noo wax nu soppali ko wurus nga moom. dëgg la <coughs> mun ne mun ne du leen tontu. wax nga dëgg. waa léegi kon su fekkoon ne ñàkk dépense day tee dóorub sëriñ mm. wala ñàkk dépasse ñàkk a mën a joxe dépasse de téye matub sëriñ hmm. yénente bi nga xam ne ma dana toog weer waxuma la joxee dépasse de hmm. moo dul am dépasse wallaay wax nga dëgg daa war am dépasse de ah, kon loola <laughs> kon xam nga ni kon natte dépasse ci sëriñ bi ah. boo ko natte woon ci yàlla it da ngay juum da ngay wedd yàlla wax nga dëgg sëriñ Saliou ah. te daa mel ni loolu dal yénente bi hmm. daana dal ay taalubeem ay taalubeem ndax boo jëlee ku mel ni Sidna Ali karamallahu wajhahu karamallahu wajhahu wallaay ndeysaan nga xam ni Sidna Ali day ku yàlla defal ay jagle ay jagle yu dul jeex yénente bi nee na kon ni ma yàlla jaglee yàlla jagleele na la noonu maanaam mhm. ni ma amee ay jagle rek noonu nga amee sa jagle noonu nga amee jagle wallaay ndeysaan nee na rañaan gi ah. li muy sori sori sori mhm. alxuraan di ko tudd mhm. nga war naj mi isa hawa maa dalla saahibukum wa maa xawa wa maa yamtixu anil in huwa illaa wahyun yuuhaa allamahu shadidul quwa suumiratin fastawa wa huwa bil ufuqil ahla fa kaana xaaba fa awxaa ilaa abdihi maa awxaa wallaay ndeysaan yent bi nee na nee na ba bi may bëtt juróom-ñaari asamaan. Mhm. neena su ma xoolee kaw suuf maa ngi gis Seydina Ali. ci Seydina Ali darajaam rëy xam nga kon Seydina Ali ko amee jagle la. ko amee jagle ngoog. nee na yàlla damaa defal man yonent bi. Mhm. may dëkkub xam-xam. Mhm. nee na xam-xam bu doon dëkk la. bu doon dëkk la du ma du ma yoon wa jëm ca dëkk ba. aw ma fa kër it aw ma fa kër daqali wu ma ko te du ma buntu dëkk ba wallaahi maay dëkk bi ci jëmmi boppam kon xam-xam mooy man maay xam-xam maay xam-xam waaye nee na bi ma doonee dëkkub xam-xam mm-hmm. xam-xam boobu nag bu doon dëkk la bu doon day am bunt mm-hmm. ñu ne waa mu ne wa aliyun baabuha baabuha ana madinatul xulum wa aliyun baabuha wa fihi wa jaalil wasan abul qusaynin wa xasan baabul xulumi wal xasan abu sirafil lan sayyiduna al mukarram aliyul muazzam murdal xital xasam sama waaye maa hi laza wal wajami wallaahi kooku mooy Seydina Ali noonu la ko sëriñ bi wooyee ci jës bu mm-hmm. gis nga Seydina Ali moomu xanaa kon seen naa leen ak ni mu foore ah. doon jàmbaaru faq tëdd am sëriñ bu toll ni rasulullah am sëriñ bu toll ni rasulullah xanaa sëriñ boobu moom mat na sëriñ yonent bi di ko woo naan ko na nga yëg ni yow àllin eh. na nga xam ni yàlla mooy joxe dépense mm-hmm. te yàlla képp koo xam ni am ngay xéewal moo la ko defal te maa ko fi nekkal te maa ko fi nekkal mm-hmm. man mii la yónni ci yow wallaay xanaa kon àllin jege na nag àllin na wër ta jeex a naan àllin waaw Muhammadu yàlla ne yàlla te yor maa ngi see gis nga àllin noonu mu sësi waaw Aliou daana xëy doom dépense. Aliou du millionnaire. bokkoon na ci ñi gënoon a euh, maanaam. ñàkki koppar ñàkki koppar. ci saxaaba yi ci saxaaba yi. ak li muy am am sëriñ matub sëriñ. wallaay ndeysaan. sëriñam ba di jege jege yàlla. de waaw. Aliou daana ñàkk dépense. Aliou daana ñàkk dépense. Sidna Ali def na ba wax wala dépense. Hmm. waaye ñeent ak tranche. ñeent ak tranche mi ne ñaari soxna ngir càng sa soxna. ah ngir càng ko. keroog bi mu bëggee xam nga ku mu bëgg. Ah. bëggul ñii de. kan la bëgg. doomi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne sëriñ dee ko bëggal doomam sayyidatuna Fatima mhm. la yent bi xool ba mu doy ko bëggal ko Sidna Ali sëñ matub sëriñ bii di Muhammad Rasulullah maa la ko wax de moo bëggal taalibeem bii Sidna Ali doomi boppam ju neex Fatima nga xam ne muy ñaari bëgg yu daje ñaari bëgg yu daje bëgguk Ali ak bëgguk Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaye Sidna Ali amul càng gu mu jox Fatima amul càng nga xam ne maanaam poste bi woyof na ba càng gu mu ko jox sa yoru càng gu ko jox yoru ko Sidna Ali neewul moo man yàlla mi nga xam ne moom laay xareel bis bu set ah. bu ma mënta jox càng moo nu ma mën a diggee ay pàkk ca àjjana ah waaw ku ma mënta jaasi ji mu daan xeexee ah. di ko xeexale lislaam mm-hmm. jaasi jooji la jël jox ko aw nit ne dem leen ci marché bi ngeen jaayal ma ko su jaree ma jële ci lu ma càngee Sayyidatuna Fatima mm-hmm. keroog ndeysaan ndeysaan am na ci ci riwaaye yu wax ni mm-hmm. sidna a jënd jaasi. wallaahi wallaahi. am beneen riwaaya bu wax ni. sidna Ousmane sidna Ousmane. radiyallaahu anhu moo moo moo jënd jaasi ji. Mhm. daal di jël jaasi ji delloo ko Ali. Mhm. Ali jël koppar yi daal di ciy càng ak soxna kon gis nga ni we waxuma la yonent bi. waaw waaye ay ay taalibeem sax dañ daan am jafe-jafe dépense. wala ñu am jafe-jafe ñu cànge seenug soxna waaye loolu daawul tax mukk ñu ne ñun suñu sëriñ bii daa matul sëriñ kon gis nga ne kon wàllu xaalis ak àddina kon mhm. ko ci natt siñ mat sëriñ daanu da ngay daanu ndax bu boobaa xam-xam moo lay weddi wallaay ndax bu fekkoon ne loolu day tee matub sëriñ kon day maara day taale nga ñemee wax na yonte matu ko gis nga muy am am ah, kon boo ko waxoon rek àddina tukki waaw Seydina Bilaal noonu la meloon ah kon nattukaay boobu moom baaxut nattukaay boobu baaxul te ni nga koy natt ci am amu àddina muy mhm. alal mhm. léeg-léeg nga gis tamit ñu nattale la ko ci wàllu njaboot wàllu njaboot ñu ne la waaw yow sëriñ bi moom mel na ni euh, yaa ngi nii bëgg doom mënu koo am mhm. te boobaak léegi yaa ngi koy wut kon yow te am nga sëriñ jébbalu ci moom boobaak léegi daaw ba ren ba nga juddoo ba léegi yow taalibe diw ngay wuyoo moo diw moom lu tax mënu laa may doom waaw yaa ngi nii ba nga sëyee ba tey amoo doom léeg-léeg sax ñun la yow mënoo sax am jabar yow mënoo am soxna yow naan di wër naan eh, sama sëriñ bi nangam wallaay ndeysaan mooy ndakate loola it ku ko ci mhm. ngay daanoo ni nga daanoo ci ki ko xaalis daanu bu wér ndax li tax mooy ba tey mhm. am na ci yónente ya nga xam yónente yi ñoo gënal yàlla ñëpp yónente yi ñoo xam ni xoolal ko toll ni ma Ibrahima wallaay bokk ci cent vingt quatre mille bokk ci trois cent treize mhm. bokk ci vingt cinq yi seen tur ñëw ci alxuraan nga xam ne sin bàyyi naan wa bi wa bi xalilika makitob wa bi kalimika Muusa wa bi Suhaybin wa bi Suleymaana Noohin wa Sakariyaa Huuda yàllahu daane Haaruna Yuusufa hmm. Ilyaasin wa Aadama Daawuda wa Silkin wa Yuusufin wa bi Isxaaqin min anbiyaain wa rusulin lakk yàlla vingt-cinq yi jeex kon xam Ibrahima moo jël deuxième position moom kay kenn du bi mu ne sindi di rek muy hmm. sang ba yonente bi ah. wa bi xalilika la ki martaba yëpp mu dajale martaba na ko nekk nabi nekk mursal nekk mursal yàlla yónni ko. ba noppi ne xalilullahi waaye nekk xalil ndax wa istaqasa allahu ibrahima xalila waaye nekk xaniif nag ndax inna ibrahima kaana ummatan xaanitan lillahi hanifan walam yaku min al mushrikina shakiran li anhum ijtabihu wa hadahu ila sirati mustaqima maa kaana ibrahimu nag wallahi ndeysaan abraham était un guide parfait wallahi il était soumis à allah mm-hmm. voué exclusivement à lui et mm-hmm. il n'était point du nombre des associés wallahi shakiran il était cantakoon mm-hmm. sidna ibrahima la yàlla tagge noonu ba noppi nag maa kaana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan ah, kooku du yahud du nasara walakin kaana hanifan wallahi waaye ku seey la ci yàlla musliman musliman ku ab jullit la ku jébbal boppam yàlla wa maa kaana minal mushrikiin nag déedéet moom musta bokkaale yàlla ci lu nëbbu ba pare doon na imaaman linnaasi wa isib ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahunna xaala inni jaahiluka linnaasi imaaman doon imaamu nit ñëpp ci kanam doo imaamu raatib déedéet doo imaamu jumaa yi doo imaamul masjid doo imaamu koñ ba. déedéet doo imaamul dëkk. doo imaamul bayti. déedéet doo imaamul mansil. yow imaam imaamu madina sax doonoo. déedéet imaaman linnaasi. képp kuy nit. sax fu mën a yow yaa imaamam. yaa imaamam Seydina Ibrahima moom mii. Ah. moo bëgg njaboot. mu ko tëj. yàlla boole def ko xaritam. ba noppi yónni ko ci gaa yi def ko imaamam mu seey ci moom di xalifa yàlla seereel na ko mosoo maa bokkaale mm-hmm. yow nangul naa la sax njullit mm-hmm. digal naa la sax nga tabaxal ma kaaba gi ndax yow damaa wóolu sab tabax yow mu mu naa wa is yarfau ibrahima alxawaahida min albayt wa ismail rabbana taxabal minna innaka anta samiul alim rabbana wajhalna muslimayni lak wa min zurriyatina ummatan muslimatan wa arina manasikana wa tub alayna innaka anta surtu baqara wallahi ibrahima mm-hmm. yàlla yamu ci de yàlla dani ko ibrahima na xam ne doom maa koy joxe donc man nii maa koy. lillaahi mulku samaawaati wala. yaxluqu maa yashaa. yahabu liman yashaa. inaasan wa yahabu liman yashaa. su sukkoor. aw yuzawijuhum sukuraanan. wa inaasan. wa yajxalu. man yashaa. xaqiiman. innahu. alimun. xadiir xadiir. à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. wallaay ndeysaan. celui qui fait don de fille à qui il veut. Mhm. celui qui fait don de garçon à qui il veut. Mhm. celui qui donne à la fois garçons et filles et celui qui rend stérile qui il veut. Mhm. lii la yàlla wax Ibrahima lii la yàlla wax Ibrahima. maa moom nguuru asamaan ak suuf. Ah. maay jox góor ku ma soob wallaahi maay jox jigéen ku ma soob wallaahi maay xañ doom ku ma soob wallaahi man nag man rek ma am kattan mm-hmm. Ibrahima mu toog na cent vingt ans bëgg am doomu tëkku mënta taawlu denc soxna quarante ans waaw ànd ak moom quatre-vingts ans allahu akbar mu juróom ñett fukki at yi mat sëkk saa yu ne yàlla yow mi ne woon yaay joxe doom doom laa bëgg de wallaay ndeysaan mu ne ko dégg naa la de toogal te réglé toogal réglé waaw li may bañ nag mooy pérection. saa yu ma doon sama xarit daal. Ah. yow doo teel a taawlu moom. déedéet yow to xaaral ba ci kanam. <laughs> yàlla quatre-vingts ans na. moo tax yàlla nag seetlu naa ñi xaritoog moom. <laughs> Eh, déedéet daa mel ne loo a <laughs> da ngay ki naan kon sëriñ bi loo koy de loom lay jariñ. Ah. yaa ngi nii sax am soxna tëla. Hmm. Seydina Isa amul soxna. yaa ngi nii am doom tëla. Hmm. Seydina Ibrahima mi xaritam cent vingt ans la doog a taawlu. wallaahi waaye Seydina Yaxya jot a taawlu. waaak ah, a bëggoon a taawlu te gis nga bokk na ci vingt-cinq yi gën gën wallaahi suñu borom ne innaa nubashiruka bi ghulaamin ismuhu Yahyaa wallaahi moo ko tagg tagg na ko ci bi kalimatin minhu hmm. sama kàddu la mooy kun fa yakunu ko jox Sakariya hmm. comme ni mu joxe Isa Mariama dëgg la wa sayyidan ab sang la ku yàlla ne ab sang nga bokk ngaa gaay wax déedéet yàlla kum ne ab sang nga sang nga waxasuuran nag nee na ku fegu la cooy ku ko yàlla waxal bokk nga gaay wax ko wan na am nag daan ne sama yonent la ab yonent la ba pare ne mina saalihiina te te gaay yu sell yàlla bokk kookaa a am doomu dëkk ah te man yutihi wa rasula faqad ataaha allah fa ulaayika maha allazina anhama allahu alayhim wa wa shuhadaai ndax kon kooko danaan yàlla ma tudd buur déedéet bu ko defee daan ah, bu ko defee daan kon bu natte woon yàlla ak yàlla gi ci ñàkkuk doomu ah. kon boobaa ba moytu mu wedd yàlla. wallaay wax nga dëgg. te xanaa Serigne lu mu farfar yàlla ëpp ko. yàlla ko mën <laughs> ndax moo ko deful Serigne. <laughs> mooy def Serigne Serigne. <laughs> ngi dégg yàlla. te boobakat bala ngaa jàll sax gis nga ñaari nga njëkk a wax. mooy ñiy natte Serigne ci koom-koom. muy ay xa alal àddina ak situation. waaw ak ñi natte ci njaboot. Hmm. da nga gisaa ci alxuraan ku am koom-koom ba du jeex. Hmm. am njaboot googu ba du jeex. Ah. boole koom-koom ba njaboot ga dem jox ko sëriñ ngir am la sëriñ di may. ngir am yàlla. ngir am yàlla ngir am yàlla loolu moom la moom la xanaa moom lañ koy tëjee. <laughs> moom lañ koy tëjee waaye loolu ak seegun boo jëlee ko mel ne kii dugg kaso. waaw kii na ci jafe yi. waaw xam ne moom am na sëriñ yaakaar boo sax ku mën a joxe addiya la. waaye day xëy rek waxuma la moo tooñ de dañ koy tooñ tëj ko. dañ koy tooñ tëj ne ko yow comme sa sëriñ mënu laa génne. waaw sa sëriñ bu yi nga xam ne mënu laa génne ci kaso àddina si ah. nga ni moom mën na laa musal ci sawara ah. waaye seetaatal ci li nga ne waay léeg-léeg ñu ne sëñ bi lañ jàpp waaw ah, sëñ waaw ah, léeg-léeg sëñ bi lañ jàpp la ñu bi ci kaso ba ku mënta ngeen xalaat waaw ba leen seen waaw nga xam ne ñooy indil raisonnement waaw moo tax bi lu ma ta waxtaane la lu ma ta waxtaane la waaye booba kooku daa fàtte Sidna Yusuf kooku tamit nattukaayam baaxul nattukaayam baaxul kon ñoo ngi ci ki nga xam ne day nattee sëriñ yii na njëkk a xam ne ay nattukaayam am moo baaxul. waaw kay bu noppee doo ko wax ni ñuy nattee. bu ñu noppee doo ko wax lu tax a jugub sëriñ. kon kon kii nattee affaire yu yooyu noonu. luy hmm. problème am daa fàtte Seydina Yuusufa yuusufa yonent yuusufa ab yonent la alayhi salaatu yemul ci doon yonent rek de mhm. yàlla da koo binde taar woo xam ne ku dul moom amu ko ñëpp a ngi koy waxtaan moom seydina yuusufa wallaay wallaay waaye yuusufa yemul ci loolu de mhm. yàlla da koo fonk ba digal fukki biddéew mhm. ak benn ak jant beeg weer wi mu tëdd guddi yàlla jox leen digal dem leen sujjootal dem leen ngeen sujjootal yuusufa qaala yuusufa li abiihi eh, yaa abati inni raaytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal raaytuhum lii saajidin qaala yaa bunayya laa taxsus ru'yaka ala fa yakiidu aydan inna sheytaan lil insaani aduwam mubiina wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan sidna yusufa mhm. te tedd ba yàlla di ko wax yu di ko di ko wax yu di wax ak moom ci ak gétt di ko di wax yu sidna yusufa moom yi nga mhm. xam ne yàllaa ko yónni mhm. yemul ci noonu yonent yusufa bàyyam yonent la bàyyam yonent la yànqub ndax yànqub ay bàyyam wallaay ndeysaan waaye yuusufa mhm. bàyyam bàyyam yonent la bàyyi bàyyam yonent la wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan bàyyi bàyyi yuusufa yonent la wallaay ndax isaaqa la isaaqa ay bàyyam waaye yuusufa mhm. bàyyu bàyyu bàyyam yonent la maamaatam wallaay ndeysaan yonent la ndax ibrahima ay wallaay ma mooy seen maam waaw kon xanaa yuusufa tedd nga yëpp dajale na moom daa tedd léppam tedd gis nga ba noppi yàlla yónni ko def ko muy ab yonent def ko muy ab yonent waaye yuusufa moom mii mhm. la yàlla seetaan ñu tëj ko kaso rap ay at yu bari wallahi xam nga nu mu def. ah au lieu mu yàlla génn ma. Mm-hmm. ka nekkoon ca kaso ba la naan boo demee na ma yëglul ci buur bi. waa gi ah, am liberté provisoire di génn waaw ngir a comme yaa ngi génn. waaw boo demee ci wetu buur ba. Mm. tudd fa sama tur na mu fàttaliku ma na mu fàttaliku ma nag. maa fàtte. te Youssouf mooy wax gaañu ni na ngeen xam ni yàlla du fàtte moom. ba pare di fàttaliku boppam ca buur. déedéet kon na ngeen dem ci buur bi ngeen fàttali ko sama bopp. ngir mu mën a génn ndax mu mën a génn. te fa xam na ni yàlla mooy génne ko génn. te yàllaay kilifaam. waaye Yuusufa ndax mënul woon a wax ni yàlla mii daal bu fekkee nee na. Hmm. moom moo mën lépp. Ah. moo xam lépp te man soppeem laa moo ma dugal fii. Hmm. moo man soppeem laa moo yàlla lu muy xoolee sax ba ba man may dug ko. waaw yàlla daal comme nag moo ma missionné. Ah. def ma ma doon missionnaire am mhm. mu ràng ma yónni ma pare ma def xaritam mhm. te moom bindee fi mhm. waaye yàlla daal kàttanam na muy xoole ñu may jàpp di ma tëj yàlla daal comme mënumaa musal ci kaso bii yónente gi sax naa seet nu ma ko def yooyu muy wax ëllëg nañ xool luñ ko def ah, est dana wóoru sax booba ak yónentam ndax ki la mënta musal ci kaso tam nga ne ah bu ma songee gars yi kon waaw gis nga waaye deful loolu dafa mel ni yooyu du ay àndaari du ay nattukaay du nga xam ne sa loolu yàlla natt na ko te ba waaja demee fàttali ko fa alxuraan nee na bàyyiwaat nañ ko fa juróom-ñaari at waaw ndax yàlla fàttali gi da ko da cee mer waaw naan ko yow daa mel ne dese ngaa xam logique gu li ma doon. logique gu li ma ndax man bàyyi la nga dugg kaso. waaw bàyyi la sax ñu tëj la fi ay fukki mhm. teewu maa doon yàlla. teewu mhm. mhm. ko yàlla. teewu nga doon soppeem. teewu nga doon xaritam. teewul nga doon nga am ab cër ci moom. mën nga am ab cër ci moom lool mu di la seetaan. fu ne nga dal fa fu ne nga dal fa nga xam ne biddaxa si ne lañ ko fa bàyyiwaat ma tax léeg-léeg jëm ni taalibe bi ñu tëj ko kaso te tëj gi ñu ko tëj kaso sëriñam ne fi génnewu ko mhm. mel ni mënu koo génne du teye sëriñ ba di sëriñ waaye la lool kaso kaso sax sedd na mhm. léeg-léeg taalibe bi daal di xëy dee dee gën a métti kaso waaw ah, mu accidenté maari dem si maari dem si léeg-léeg leneen ak leneen mhm. ñu ne ah yow de sab sëriñ bi comme mun laa musal ci lii ah moom nangam ah noonu daal mën a mën a dooreb sëriñ waaw ah, léegi dañoo fàttani nag yàlla mi moom ñëpp yebal na ay yonent yu ray xatit afa kullama jaakum rasulun ma la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kazzabtum fa fariqan taqtuluun taqtuluun wala tay yonent la nu tay yonent la nu mais nag ku toll ni yàlla tànn ab yonent yónni ko ne ko hmm. demal ma mission waaw ci sama jaam ñi damaa leen sàkk moom leen hmm. xoole ñu rendi leen ñu rendi leen <laughs> est-ce kon da nga kon yàlla du yàlla ah, nga defee ne kon kii natt nii hmm. ab sëriñ boo xam ne daa dàppoon ab taalibeem yabal ko mission ne ko demal doxali ma ba demee gars yi rend ko gars yi dañ naan nañ ko sacrifier ah, léeg sax taalibe ba di dox mission wala muy dem xel kom mhm. wala muy dem ak cant waaw wala yu demee noonu yi ndog dal ko wala muy dem ca daayira ba wallahi wala ndeysaan muy dem daal foo xam ne bërëb boo xam ne daal jotaayu sëriñ sëriñ bi la nga dégg ñu naan waaw xool leen rek nekk ci lii rek ba faatu waaw ah, ay nit yónni la kërëb ah, ah, xam ne ko te yàlla jox na nit mission bu toll ni mission bu yonent ba pare xoole ñu rendi ko ñu yónni la ci jaam ñu rendi mm-hmm. yàlla yàlla teewul moo la jox mission wallahi te boo doon xool ci yëf ni da nga naan kooku réussirul xanaa ah da loolu mooy réussite am mooy réussite am ndax moom da kaw mu réussir ci yàlla loolu mooy mbigam boo rek réussir mooy léegi mu denc mission bi yàlla di jottali ba loolu fekk ko ca loolu mooy réussir am ndax allatina yuballighuna risalatillah wa yaxsawnahu wala yaxsawna ahadan illallah mel na ni mm-hmm. kon gis nga ni yooyu yëpp ñuy wax di ko natte ab sëriñ mm-hmm. mel na ni wuute na ak nattukaayu sëriñ ah, ndax misaal moom sax mu yëntu yàlla moo xam ne bala nga àggale waaw ànd na ak ay taalibeem ci mission bi yàlla di xare di xare perte xare ya ñu leen di rey ñu leen di rey ba pare yàlla ne wala taxsibanna allazina xutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaa'un inda rabbihim yurzaquun farixiina bima aatihumullah min fadlihi wa yastabsiruuna billazina lam yalhaqu bihim min xalfihim wala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun yastabsiruuna bi nixmatin min allahi wa fadlin wa anna allaha laa yudiihu ajral muminin gis nga kon <laughs> li gën a neex nag te xoromu waaw mooy yàlla day bàyyi ba ñu rey leen mu ne deewu leen waaw yéen day yéen a ngi dund ci man <laughs> <laughs> nga xam si yàlla na bàyyi ba nga dugg ci toolu xare bi di dóor déjà ñu rey nga dee ba say mbokk di jooy wallaahi gàddu la gas la suul mhm. yàlla la deewut deewut de. wala tax si ban na la zina xutilu. ba pare naan bu leen njort ni nag wala tax si ban na la xutilu. maam seen raisonnement. ak dee la leen di jox. waaw <laughs> a gëm ni nag yow. mu xañ ko ko. ba mu ko a bàyyi mais na lu leen ci yàlla. wallaahi am na lu leen ci yàlla. kon mhm. ba nit matul ab mhm. nga mbirum yàlla. Mhm. loolu yi nit a nga koy jël di ko jaay ngir jox ko yàlla. wallaahi. ndax bu dee bakk lu ñu fi tudd. tudd nañ fi alal tudd nañ fi alal. mooy wàllu situation wàllu situation. tudd nañ fi njaboot. wallaahi. yaa ngi dégg. ak bakkan. tudd nañ fi bakkan. tudd nañ fi yow si jëmmu bopp. Mhm. ak wàllu tolof tolof. wallaahi yooyu yëpp buñ la nee loolu am sëriñ teew laa am teew laa nekk ci tolof tolof. Mhm. teew laa faatu. Mhm. teew laa dugg kaso. teew laa nangam ak nangam. teew laa am kër. yëgal ni. yonent bi ak i gaayam. ñoom dañ doon jox loolu yàlla ngir am yàlla. ñoom bi yonent bi ñëwee doonub sëriñ. waaw am na ñoo xam ne situation yooyu gars yi di wut ci sëriñ. ba defee ne ku ko amul doo amul sëriñ. waaw amoon na ñoo ko am ba nopp jël yooyu moyen. am ci lim lim doone sëriñ. kon ñu ñu taxaw ci dépense. dépense am na koo xam ne. Mhm. dépense am la jox yonent bi ngir wuti yàlla. kon ki doon natt naan yow sëriñ bi ko mënu laa jox dépasse du sëriñ. waaw am ko am dépasse ba noppi. kooku xamul objectif bu sëriñ. xamul objectif bu sëriñ Seydina Ababacar. Mhm. am dépense bu doy. wallaay ndeysaan Seydina Ababacar. Mhm. laata muy doon laata muy dugg ci l'islam. Mhm. la woon. waaw de la de. bari alal lool. waaw wallaahi. édifice yi njëkk a taxawal. Ababacar moo jënd pàkk yi. loolu dëgg la. bokk ca ña ko doon tabax. yaa ngi dégg wax ji. waaye gis nga Seydina Ababacar bi mu duggee ci l'islam. alalam jëpp a jeex jeex takk ci yoonu lislaam wallaahi waaye Seydina Ababacar mhm. moo dem bis ba mhm. amul dépense bu mu joxee lépp financé na ko ci yenent bi woote daje bu rëy mhm. Ababacar amul yére bu mu sol wallaahi mu xool bàyyi ba gaa yëpp daje mu daal di wékk ko benn manto rek yaa ngi dégg daal di dugg ci mbooloo mi bi mu duggee rek yenent bi salaay salaam daal ne xalal leen Ababacar may ko mu toog may leen ko mu toog ñëpp xàll ko mu ne xool leen ko li mu sol ma nga tegoo manto bu xonq daan ne xool benn ba juróom-ñaareelu asamaan. Mhm. yàlla digal malayka yëpp ñu gàccoo ay ma ay manto xonq. ñu sol tënib Ababacar ñu ma ni waa yàlla lii lu tax. Mhm. ñu ne Ababacar lépp lu mu amoon ci alal. Mhm. jox na ko yàlla. ba tax deseetul dara yàlla moo koy décorer ci tënib bi mu sol. wallahi nga xam ni kon ki naan sëriñ bi. matul sëriñ ndax defuma dépense. Ababacar daa am dépense jox ko yeneen bi ngir wut yàlla. ba yàlla di ko décorer ànd koog malayka. xanaa looloo ko may aaye wasay jënd ba atqa. wallahi allati yuti maaluhu yatazakka. wallahi ndeysaan xayrin hindahu min nihmatin illa btiqaa wajhi rabbihil a'la loolu fa Ababacar jaar wala sawfa yarda wala sawfa yarda wallaay nga xam ne wut ngërëmul yàlla rek moo tax mu jël alalam jëpp dépensé ko ci sëriñ bu mat sëriñ boobu di yónnante bi ah. ngir mu may ko yàlla mi fa xamee ne leer na nañi waaye ñi moom dong sax nag ah. saxaaba yi ko def bari nag xam nga Ababacar moo jënd Bilaal ah, fay ko ngir lan <laughs> mu gore mën a wut yàlla ci sëriñ bi moom itam <laughs> nga xam ni Seydina Ousmane ibn Affan gis nga ko wallaay Ousmane nga xam ni daa daa joxe alalam a joxe alalam bu yonent bi ne ko mënutoo def lu naqar yàlla mhm. ngir financement yi nga def ci l'islam bi waaye Seydina Ousmane moom yi mhm. dañoo fàtt ni moom rek a tax mhm. yonent bi fanaan ci jàkka ji moom rek ngir joxe alalam ngir joxe alalam dajale addi ju bari yóbbu kër yonent bi kon amoon na moom ah amoon na kon moom bu fekkoon Allah rek kay taxa ñay natteb sëriñ ah. duutub sëriñ duutub sëriñ waaye daa jël alalam jooju di ko financé. ngir jëriñu ci sëriñ. ngir jëriñu ci sëriñ bi. Mhm. ndax ki ne sëriñ mënumaa jox dépense. Mhm. kon jarul may am sëriñ. Mhm. kon bu fekkoon yow am nga dépense du jar ngay jar ngay wut sëriñ. waaye am dépense ba mu doy. teew teewul teewul laa am sëriñ. déedéet kon sëriñ doyewuñ ko dépense. wallaahi wallaahi dafa mel ni buñ toppoon foofu xuus ci. waaw mooy wabaatan nabi yu. waaw waaw ilaa fajarin ilaa fajarin sëñ maa ngi koy woowee ci raay yi. nga xam ne yéen bi mu ñëwee taxaw ci buntu kër gi. fu mu bëgg jaar lii la ñu ne ko lii ay xéewal ku ko ji keroog salaay salaam day julli gee ba fajar mhm. day jëkk baa ngi tànk bi di metti mhm. toq mhm. muy taxawee benn tànk bu bii toqee mu taxawaat beneen ñu yàlla ne ko sa julli gi loo ci jublu mu ne ko sàkkul Ousmane gërëm sàkkul Ousmane gërëm booba financement alalam la def alalam la joxe ay dépense am sax boo jëlaatee li nga wax mm. ñiy natt sëriñ naan am sëriñ ba pare amoo pàkk mm. amoo kër mm. amoo soxna amooy doom kon yow sëriñ bi lu mu lay jariñ bàyyi nga ni alxuraan nee na ay gaay yi nii yoo xam ne bi ñu gisee yonente bi feeñ di sëñ matub sëriñ hmm. dañoo am seeni këriñ ba am ay pris ni ko wax rek garasiel ci biir Màkka jox jox hmm. yaa ngi dégg ñii am ak ay ba am ay njaboot ñii hmm. seeni capital du jox biir Màkka yonente bi gàddaay dem Madinatu Munawwara yàlla ne ku sag taalibi wér fekk ko fa waaye lil fuqaraa il muhaajiriin allasiina uxrijoo min diyarihim gaa yi génn seen kër yi min diyarihim kon ñoom bàyyi nañ kon am nañ ay pàkk kër ba pare waaye wa amwaalihim ah seen alal. seen alal kon ñooñu am nañ capital. am nañ capital ba pare. ñu wan ko ginnaaw lu xew. mu ne na fadlan hmm. minallaahi wa ridwaanan ngir sàkk sàkku ngëneelul yàlla ak hmm. ngërëmam ci sëñ matub sëriñ ba tax nañu bàyyi seen alal ya hmm. bàyyi seen kër ya génn ko ba pare dootuñu ci jotati ngir dem fekk yonente bi madinati munawara wa yansuruna allaha wa rasulahu ulaika humu saadixoon ulaika humu saadixoon yàlla nee na ñu dëggal ñàngoo gi kon bu fekkoon ni ay kër la ñuy natteb sëriñ ñooñu am nañ sëriñ ba kër ba pare lu ñu dee sëriñ graciel yéen am jeex na ko ba pare nag ñu boole lépp dajale ko dajale ko jox ko seenub sëriñ ngir amee ko yàlla ba pare bi bi mu ne lil fuqaraa muhaajiriin uxrijuu min diyaarihim mhm. waxaale na seenu njaboot nga fa bàyyi kër ga bàyyi waaye bàyyi nga ne seen am na ñoo xam ne seen bopp mhm. seen jëmmi bopp muy kinaan la sëriñ bi bu la du la teree dee du la lu mu defoon bi yonte bi de gàddaay bu mu ko tëddloo ca lal ba mhm. ne ko tëddal fii sangoo sama mbàjj mii. Mhm. ma mën a génn ndànk. ba yéefar yi yëpp. tëddal fi ma daan tëdd. <laughs> ah te tëdd ni ma daan tëddee. Ah. sol ni ma sol ni may solo ah, sangoo. Ah, mbàjj mi ma daan sangoo mbàjj mi hmm. loo ci jublu mu ne ko ngir man ma génn. yow nga def si bu nuy ray ray la loolu lay firi rek. moom mu daane dara ne ma ko. ndax dañoo gaaw kër yonent bi looloo bi di bëgg koo rey. ah yonent bi di wut porox ndoll bu mu jaar ngir génn. Hmm. ne leen dañuy système gars yi. dañ hmm. leen piège waaw. comme bu ñu yëndoo ci fenêtre bi xam nañ fi may tëdd. Mhm. yow tëddal foofu. tëddal foofu sàngool mbàjj mi ma doon sàngoo. Mhm. man ma taxaw nga xam ne buñ bettoon tëb di rey. Mhm. buñ reyee yow la ñuy rey man duñ ma fekk. moo tax sax yàlla résultat ku rey boppam te yàlla tax la ko jox. waaw ndax dañuy wa minan naas. man yasiri. wallaay de sax nafsahu ibtiqaa mardatillah. wallaahu ruufa bil ibaad. am na ca nit ña kook. booba Seydina Ali lay junj. yasiri jaay na hmm. nafsuhu boppam waaye hmm. kan la ko jaay yàlla pour lan ibtiqa amadatillah ah. sàkku ngërëmul yàlla loolu mooy man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbi wala xawfun alayhim wala hum yahzanun kon kon ki nga xam ne kon daa bëgg faatu moom hmm, ngir am li njariñ li sëriñ bi yor kooku day yëg na ni kon kenn duñu ko yow sa sëriñ bi mënulaa tee faatu kon matutub sëriñ ndax moom daa am bakken ba noppi <laughs> waaw fas yéene ngir yàlla ngir bëgg am yàlla alxuraan moo ne inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna duxulul jannata yuqaatiluuna fi sabilillah fa yaqtuluuna wa yuqtaluuna wax dana lay xaq fi tawraati wal injiili wal quraani wa man nawfi bi ahdihi min allahi fastafsiru bi bayhikum allazi baayaxtum bi wa huwa wa daalika huwal wa daalika huwal fawzul aziim nee na payoor bu ko mag gàngoo gu rëy gaa rëy ñu ne ko waa luy payoor gu rëy gi yàlla ne nga am dépense jox ko yonent bi ngir wuute ko yàlla joxaale ko sa njaboot joxaale joxaale ko sa njaboot ak sa bakkan nee na nga am njaboot ba mu noppi mhm. nga jébbal ko yonent bi mhm. ngir wute ko yàlla ngir wuute ko nee na nga jël sa bakkan bii mhm. sa dund gii nga jébbal ko yonent bi fas yéenee dee ñu ne la dee gi loo ci jublu nga ni ngir am pàkk ca àjjana inna allaha ashtara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi am na anna lahumul janna maa am ay pàkk ci àddina li ma koy jaayee mooy bu leen xool ni yonent bi joxu leen pàkk ci àddina kon mënu leen jox pàkk ci man déedéet déedéet pàkk yi ngeen am ci àddina ak seen bakken ak seen alal ak mm. seeni doom ak seen bopp jébbal leen ko yonent bi ba du ngeen amati dara ngir jënde ko pàkk yi am kon yow li ngay natt ci àddina waaw ni moom nga war am ngir yonent bi mat na njariñ waaw yooyu da nga ko war a dajale mhm. jox ko yonent bi ngir am pàkk ci àddina ngir jariñu ci njariñ li yor kon am na leneen lu ñuy sàkku ci yonent bi lu bokkut ak yi nit ñi wax maa la ko xam xanaa moo tax yàlla tagge leen ñoom kat ñooy allatina amanu ah. wa haajaru <laughs> bi amwaalihim wa darajatan wa ulaika humul faaizuun daane yubassiruhum jannatin lahum fiha nahimun muqim fa fa la ñuy sax na xaalidina fiha abadan ca surtout temps indi wallahi inna allaha hindu ajrasim ah, yi gaay mm. ñoo ñi nga xam ne amono gëm nañ ba noppi mm. waxaajaroo mooy gàddaay génn seen i kër yëpp bàyyi seen i kër bàyyi seen njaboot bàyyi seen i soxna bàyyi seen i doom bàyyi seen alal yemunu ca wajaahadoo mm. ñu jaxaat bi am waalihim kon joxe nañ seen alal mm-hmm. waan fasihim waan fasihim daane lool nag moo leen jural résultat hmm. ahsanu darajatan hindallah ñoo ëpp ñëpp daraja ci yàlla wallahi wa ulaika humul faisun fii ci nit ñi amatuñ dara waaw wallahi ñii bàyyi nañ seeni i soxna ay célibataire la ñii bàyyi nañ seen i doom amatuñ njaboot wallahi amatuñ kër ñii bàyyi nañ seen entreprise ay chômeur lañ wallahi kon tekkeetuñ dara ci yéen ñëpp a leen di yërëm waaye ahsanu darajatan hindallah yàlla neen fii nag fi man ahsanu darajatan hindallah ahsanu wallaahi nga naan akbar. wallaahi ah Serigne Saliou. afaalu tafdil la afaalu tafdil la. wa ulaika humul faisoon yàlla sax li ci a mooy ne ñii dong nga réussir. faïs ñoom ñooy faïs yi. nee ñoom ñooy réussir. ñoom daal ñoo gagné. te ni ko àddina nattee. Ah. ñoo ñoo perte réussir. ñoo ñoo perte waaw yow de sa dund gi amoo ci benn réussir. ah yow bi nga toppee yonent bi ak léegi eh. daanaka sa kër yëpp ñàkk nga. wallaahi ndeysaan. waaw xoolal bopp nag. ah yow amoon ngay soxna dem nga Madina bàyyi nga fa say soxna waaw

déedéet ba léegi ci a tawba du jeex xul in kaana aabaukum wa abnaukum wa ixwaanukum wa aswaajukum wa ashiratukum wa amwaalun iqtaraftumuha wa tijaaratun taxsawna kasaadaha wa masaakinu tardawnaha ahabba ilaykum min allahi wa rasulihi wa jihaadin fi sabilillahi fatarabbasu xatta yaatiya allahu bi amrihi wallahu laa yahdil xawma alfaasiqiin wallaay ndeysaan ca suratu tawba ca suratu tawba yàlla pareegul de nga ni nee na yonent bi gaa yi taxaw mukk naan comme am na ay sœur ak ay frère waaw am na ay entreprise kon yonent bi mat na sëriñ yàlla ku mën la déedéet waaw ah, comme yëf yaa ngi dox comme yëf yaa ngi dox sama sëriñ man na déedéet yàlla ne fekk amu leen fitu hmm. xul in kaana abaaukum wallaahi ngeen xool seen baay ba mu doy leen waaw ngeen yëg ni man yàlla maa leen gënal seen baay waaw daa bàyyi daal liñ koy bëgg bëgg yàlla na ko gënal wallaahi ndeysaan ndeysaan nga xam ne yàlla bu soxla woon mhm. sa baay sa baay soxla mhm. nga xañ ko bàyyi day xaar. Ah, wallaahi nga xam ne yàlla bu la woowoon. ci gëm ko. Mm. sa bàyyi na la bu ko gëm. Mm. yàlla ne ah ba nga topp ko. waaw nga ne ko bàyyi nga jaahadaaka alaa an tushrika bii. maa laysa laka bihi ilmun falaa tutihuma wa saahibhuma fi dunya ma'rufa wa tabi sabila. man anaaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bimaa kuntum ta'maluun bimaa kuntum ta'maluun wala mm. na nga yëg nii maa man yàlla maa la gënal sa baay. naa loolu ni ngeen ko def. waaw na nga na nga na nga fa sañ a ñàkk sa baay ngir man. Mm-hmm. faaw nga faaw nga am fit wi. waxal gaa yi bëgg a am sëriñ matub sëriñ. Ah. na leen seen bàyyi gënal yàlla. na leen seen bàyyi gënal yàlla. muy benn wa ab naa ukum. seen i doom seeni i doom. Mm-hmm. faaw ngeen yëg ni man yàlla maa leen gënal seeni doom su ma soxlaa seeni doom soxla ngeen xañ mm-hmm. seeni doom ngir jox ma su ma soxla woon seeni doom ngeen am xolu jox ma seen i doom looloo waral tabaski. moo waral tabaski. Sidna Ibrahima doom ji la ko yàlla laaj. waaw damaa bëgg mu dee. te boobu Seydina Ibrahima ndeysaan toog na cent vingt ans mënut a taawlu. wallaay taawam ba ñëw rafet lool. lam daj ci taawlu. wallaay yàlla bàyyi ko ba mu am taaw. wallaay yàlla dogal ci moom mu sopp taaw bi nag. bàyyi ko ba mu dëgër. bàyyi ko ba mu dëgër moom commencé koo bëgg. vraiment balax ma yàlla ko ray ray na na dee. <laughs> ñi ngi wax mbokk yi ni mën nañoo ànd ak ñun ci ci ci ci serveur bi. wallaay numéro yaa ngi noonu. xam naa ne numéro yaa ngi noonu bu ko defee sëñ Saliou mm-hmm. yàlla ne hey ma Ismaïla waaw mënta wax yàlla comme yow. wax dëgg yàlla dëgg yàlla nee nga yaay sama xarit. Ah. yow nee nga mën nga yónni. Hmm. ak li ma daj taaw bii. wallaahi moo yàlla lu ma ci rey. waa penc maa ngi doon ma ñaawal la mënu maa am doom. moo tax seytaane sax bi mu ñëwee da ko yow dof. waaw xaajara la ne ko yow gis nga yow xaajara yow. yow da ngaa dof yow. wallaahi. yow sa doom ji ñu bëgg a rey. ak li nga daj ci am doom. 99 ans ngay barke Serigne Bamba nga nar a xoole rey ko nii. xaajara yemu ci de ay hmm. xeer la fa di ko sànni di ko sànni yàlla ne dama ni noonu xaajara def bañ ko bëggee découragé ci sëriñam ba mhm. loolu damaa bëgg ngeen koy roy bu ngeen demee màkk waaw sànni jamra dee leen ko sànni waaw wallaay su ne kuy sànni jamra xamoo sax mhm. li def xamoo ko yàlla nee na la bul nattee nattukaayu àddina yi bul ma ci natt su ma la digalee defar rek bu ñu lay saboteeg di la jaboli da yow nekk ci rek sa taalibe bi bu ko dara yàq ndax waa koñ baa ngi sa yàlla ji matul yàlla yaa ngi ne mënoo sax am ah. am ko la ko eh. moo nga ko yàlla na yow gàcce nga ma bëggal waaw dëgg na yàlla waaye déedéet waaye sëñ Saliou mhm. moo tax yàlla ne xul in kaana abaakum wa abnaakum waaye wa abnaakum teg ca wa ixwaanukum seen i mbokk wa ixwaanukum seen i mbokk yàlla moom lu ngeen seen mbokk lu mu leen jege-jege ah. muy sœurs yi muy frères yi ah. maa ngeen bëgg leen fonk leen de ah. waaye naa man yàlla naa leen gënal wallaay ndeysaan su ma taxawee ñu taxaw seen bëgg-bëgg taxaw sama bëgg-bëgg taxaw ah nañ xaar waaye sëñ Talla xam nga bu ma ree nag. waaw ah, waa Aswaajukum waa Aswaajukum. daal moo ci gën a garaaw. suuu waa Aswaajukum. naa leen gënal seen i soxna. yow Amar Fall. moom moom na la yàlla gënal ay la yow. ndokk sax ba Amar Fall jamono jooju fekk ko fa rek. na naa tiit ci moom lool. te te te te. xam nga loolu dafa yéeme na. da koy négocier. xam naa ko <laughs> bu doon jamono ji da koy négocier. xam nga loolu sëñ Saliou du yéeme la yow. fexeel ba ma gënal la sa soxna. su fexeel ba soxna si naa la ko gënal. man nga yor 1000 francs soo resee ne dépense amut. Ah, yàlla ne la maa ko soxla. maa ko soxla fexe ba na nga ko ko xañ na nga ma ko yëgal ni daal man yàlla. maa la gënal soxna si. si diw soxna si jeex yàlla soxla ci jàkka ji. waaw te 2000 francs nga yor. <laughs> waaye loolu. laa baabakat defam. wallay jaxara tàbbu waa aswaajikum wa aswaajikum xare Tabouk dafa jot yéen bi ne ah xare bi nag suba la de. suba la xare bi de. ñu ne waaw mu ne waaye soxla nag financement. mënatut a ñàkk. faaw ñu am ay gëléem faaw ñu am ay fett. faaw ñu mm-hmm. am ay xeej faaw ñu am ndox. Mm-hmm. saxaba kenn ku ne ni bërit jug dem këram. Mm-hmm. ku ne la nga am nga indi ko. yonent bi di xool jëf ji di xool jëf ji di xool jëf ji ba yaa gis ni Ababacar lim andi bari na lool. mu ne Ababacar loo bàyyi kër Ababacar ne ko bàyyiwuma fa lu dul yàlla ak sa jëmm ci wallaahi boobu mooy bàyyiwuma fa dara mooy lépp jeex na mooy lépp jeex na mu ne ko lu tax mu ne ko day def lu ma yëkkati dem ba koy bàyyi kër ga xam ne su ma ko bàyyoon kër ga am ca fukk su ma ko indee ci yow am ci junni wallaahi ma topp ko noonu topp ko noonu ba kër ga jeex ba kër ga jeex yonent bi nag seen jëf yi ni mu demee mm-hmm. ni mu wutee mhm. na ngeen xam ne seen i ngëm ci yàlla noonu la wutee ak seen i daraja aaya ba ne innamal mu'minuuna wallaay ndeysaan allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartaddu wa jaahadu fi sabilillahi bi amwaalihim wa anfusihim waaw daane ulaa'ika humu saadiquun ulaa'ika humul saadiquun xoolal ma loolu mhm. nga xam ne bàyyiwul dara kër ga bàyyiwul dara kooku am bàyyiwu fa dem aaya bi lu ma innamal mu'minuuna te innama aadaatu xas yàlla waaw sa dëgg-dëgg les croyants authentiques ñoo ñoo ngi nii ñun ñoo ñan la mu ne àll si na ña nga xam ne amano billahi gëm yàlla wa rasulihi gëm yonentam su ma lam yataabu waaye yemuñu ci loolu dootuñu sikki sàkk dootuñu sikki sàkk wa jaahadoo dañuy jaayante bi amwaalihim ci seen alal wa anfusihim ak seen bakkan fi sabilillahi ci yoonu yàlla ulaayika yii gars yi daal hum assaadixuun assaadixuun ce sont les croyants authentiques muy julli dëgg ña mm-hmm. kon yow mii téye di ci natt sëriñ yàlla ne jox ko sëriñ bi yow ngir wute ba ko. wallaahi Ababacar loolu la defoon. comme waxasiratukum moom daa ñëw wax famille bi yëpp waxasiratukum kon neen liimatul moom ni ko fi naan felee rek dooma léegi daal waxasiratukum baam bàjjan <laughs> <laughs> a toll na nga saada mooy mooy commerce bi doon dox moom entreprise bi nga taxawal entreprise yi lu mu rëy rëy rëy <laughs> wallaahi xam ne entreprise am na mille bu fort la wallaahi yàlla ne la gënal entreprise eh, graciel yi nag wa masaakinu tardaw na te nee na seen bopp mooy moom yàlla ni ngeen ko bëggee wallaahi ndeysaan ahabba ilaykum minallaahi su fekkente ah fatarabbasu hatta yaati allah bi amri waaye ah, wa jihaadin fi sabilillah waaw yëpp na ngeen ko jihaate ci yoonu yàlla <laughs> hmm. dañu gënal gi leen di gënal yàlla yàlla gënal gi mu leen moo ko yónentam yéen a ngi koy wane ci jihaate ko ci yoonu yàlla da ah, ngeen koy joxe ko ko ci mënagut hmm. fatarabbasu xaaral hatta yaati allah bi amri mbirum yàlla mën naa dal sa kaw xam nga lu lu tax nag aaya bi doy waar waaw mooy wallaahu laa yahdil xawmal faasixiin yàlla nee na du gindi nafiq yi ndeke faasix mënul jihaat ci yoonu yàlla mënu ko xanaa xamu faasix mën ta joxe ci yoonu yàlla faaseex baayam du ko yàlla du ko gënal baayam faaseex yàlla du ko gënal doomam yàlla du ko gënal soxnam yàlla du ko gënal alalam yàlla du ko gënal famiyam yàlla du ko gënal ay commerce yàlla du ko gënal ay këram yàlla du ko gënal it ay entreprise te du jihaat ci yoon yàlla yàlla yàlla yàlla ne kooku nag du ko ginde mukk waaw ah, bismillah day mel ni sëñ Saliou am na ku nekk ci ligne bi allo allo salaamaaleykum allo mel na ni mbokk bi jéemoon naa dugg waaye xam naa am na jafe-jafe kon ñu ngi koy dégluwaat. kon daal yooyu du nattukaay. waaw kon yi ñuy nattee Serigne du nattukaay yooyu du nattukaay yi ñuy nattee Serigne. Mhm. ak Serigne Saliou. kon El Hadj Boubacar bëggoon naa nga ñëwal lu yii nag ñi nga xam ne moom la waa àddina natte sëriñ ba tax ñu ne yii ku ko mënul doo ab sëriñ ku ko amul ci sab sëriñ sab sëriñ jëriñu la comme yooyu alxuraan dajji na ko moom ndax li ñu lépp alxuraan sunna la waaye kon lan lan la ñuy natte ab sëriñ ab sëriñ luñ koy doyee jërëjëf sëriñ Saliou foofu nag moom mooy laaj bu am solo bi mhm. bismillah day mel ni am na mbokk mu nekk ci ligne bi asalaamaaleykum mbokk bi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. aleykum salaam wa yàlla yàlla nangu ziar ñi ngi ñaan nga yokk kàddu gi. bismillah. ah alhamdulilah rabbil alamin. wallaahi yàlla ñi ngi ñaan ngay dégloo ci téléphone bi. yokk kàddu gi tuuti yàlla yokk xam-xam bi. ndax li ngay wax am na solo. Hmm. yàlla yàlla yokk xam-xam bu baax. waxtaan am na solo wallaahi. ah alhamdulilah rabbil alamin. voilà moom si penc mi moom si penc mi. ndeysaan. ñu si bëri leen lan leen mënal. wante macha allah la nañ lool. sëriñ bi ñu ngi ñaan nga yokk kàddu gi bu baax waaye. waaw yow ñuy ñaan yal na yàlla defal jàmm daal. amiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin bu baax a baax. noo tudd ak fooy wootee. man maa ngi tudd Mor maa ngi tudd Mor si eh, maa ngi maa ngi dëkk eh, bo Touba waaye maa ngi wootee Fouréné. Mor ñu ngi lay nuyu bu baax yaa waa Touba gi. waaw wallaay ñu ngi kontaan si yéen baax wallaay yàlla xam ne loolu wallaay. ndeysaan ñaanal sa Mor mu taxaw yàgg te wala waa Touba chaque chaque alxames dinañ dinañ dinañ suivre wala dinañ suivre bu baax ah dëgg la moo nee na ñu ngi suivre bu baax kontaan na lool wallaay kontaan na lool. ah alhamdulilah rabbil alamin. wallaay yal baax jërëjëf waay. kooku mooy dëkk Touba ñu ngi koy. siyaare bu baax a baax moom waa Touba gépp di nuyu Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi loolu njaboot Sëriñ Tuubaa gi kon mel na ni Sëriñ Saliou daa mel ni gars yi song nañ ligne bi bismillah waaw ndeysaan ci jotaay bi lañ bokk bismillah kooku mel na ni génn na. kon ah, Serigne Saliou. Alaaji Boubacar kon damaa bëggoon nga ñëwal nu nag. Mhm. ci lan la ñu doyee ab Serigne ndax gis naa ni problème mu tànn kon am nañ ko. Mhm. nañuy tànn Serigne ñëpp kon jamono jii ñi ciy coow ñëpp li ñuy tànne Serigne taxutoon yàlla digle ñu tànnub Serigne. déedéet taxutoon yàlla digle ñu tànnub Serigne. ndax sa waxtaanu leeral na ko. wallaay ndeysaan kon ana lan moo tax ñuy tànnub Serigne ndax ku xamut kan li ngay doyee mbir mi wàcc am mbir mi wàcc na la. dëgg la ndax boo ko amee doo ko jariñoo. dëgg la ndax mbir faaw nga xam li nga koy doyee doo ko wut. wallaay wax nga dëgg. gaa yi di wuti xaalis dañoo xam li ñu koy doyee ba noppi. ku ne xëy doo ko wuti. bismillah am na mbokk mu nekk ci ligne bi. ñi ngi ñaan nga wàññi retour bi mooy nga wàññi télé bi te dégloo ci téléphone bi. mbokk mi de mbokk moomu day mel ni dem na xam naa jafe-jafe technique la rek xam naa dañoo songandoo jotaay bi ñoo ngi leen di jégalu bu baax a baax ci loolu mel na ni kon Serigne Saliou waaw point boobu laa bëggoon nga ñëwal nu ci faaw xam kon Serigne luñ koy doyee ndax loo xamul loo koy doyee mhm. boo ko amoon doo ko jariñoo waaye xamit maanaam Serigne bu matub Serigne mooy kan mooy kan kon dañuy njëkk a xam lan mooy objectif wut Serigne waaw ba nga xam ni kon lii ngay doyob sëriñ mhm. daal di xam ne loolu ngay doyob sëriñ nag ci ban sëriñ nga ko mën a amee ci ban sëriñ nga ko mën a amee mooy kan mooy ab sëriñ ndax xam nga sëriñ Sénégal buñ nee sëriñ mel xeetu sëriñ si dafa yooyu mhm. door a ñëw ci maanaam li ñuy tuddee euh, sëriñ li ñuy doyob sëriñ li ñuy doyob sëriñ léegi bala ñëw ci lan nañu doyee sëriñ bu matub sëriñ bii di guide spirituel waaw damaa bëgg yi ni wooyee sëriñ yëpp ndax ñëpp ay sëriñ foofu la wax ji ne ka ca koñ ba yor pantre mhm. yor ay pitaaw di gisaane damay dégg ñoom sama bàjjen ne sëriñ la kon mel na ni am na ku nekk ci ligne bi allo salaamaaleykum salaam wa rahmatullah allo allo salaamaaleykum waaw ñu ngi lay yàlla yàlla nangu ziar ay ci jàmm si foo foo foo nekk ak fooy wootee noo tudd ak fooy wootee allo allo oui yokk kàddu gi tuuti ñu ngi lay dégg di ñaan nga yokk kàddu gi yaa ngi ñu ngi sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah. ah seen allah am na lool. ah alhamdulilah rabbil alamin. ñu ngi sant yàlla bu baax seen prix bi allah am na solo ah alhamdulilah ñu ngi ñaan nga dégloo ci téléphone bi wàññi sa télé. allo. waaw ñoo ngi ñaan nga dégloo ci téléphone bi te wàññi télé bi tuuti. soxna si ñoo ngi ñaan nga waxe ci kooku mel na ni mbokk moomu daa dugg di rafetlu jotaay bi. ndeysaan ñu koy bu baax baax Serigne Saliou. waaw xam nga Sénégal. bu salaam wa salaam wa rahmatullah. waaw soxna Aïda Saliou ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. maa yàlla na yàlla nangu ziar soxna Aïda mu Serigne Saliou. maa ngi leen nuyu bu baax di leen ñaanal bu baax di ziar. ndeysaan ñaanal sëñ mu yàgg ci lool te wér. amiin amiin amiin waaye di ñaanal seen bunt bi soxna Ayda sama xarit bi sama. soppe bi wallaay ndeysaan sa waxtaan wi am na solo maa ngi leen nuyu. ndeysaan jërëjëf li ngeen dugg nag am na am na solo am na maanaa. Mm-hmm. ndax bu fekkee ne dañoo nekk ci buntu yoon woo xam ne yoonu mm-hmm. taalibe la mm-hmm. day baax ñuy fàggu waaye yéen de jataay bii ngeen def yaakaar naa ne ëmpalewu mm-hmm. leen li tax ñuy xam ab sëriñ lu ko war ak taalibe dëgg la ndax xam naa ne yor ngeen koo xam ne ñun yor nañu koo xam ne dëgg la ak fàggu teefu sëriñ Saliou la jaarale ko ci fàggu teefu Cheikh Béthio dëgg la te ku wax fàggu teefut Serigne Saliou rek doo bàyyi Cheikh Béthio mukk déedéet doo ko bàyyi mukk te ni ab sëriñ di mel ñu hmm. ngi ci yorub taalibe ci yar ci teggin hmm. ci jàngale hmm. waaye ci yërëm ndax nit ki balaa pour mu mat sa taalibe da nga koy yërëm dëgg la ñoo ngi ñaan nga yokk kàddu gi soxna Aïda boo ko bëggee yërëm ko rek da koy mën a gunge dëgg la tax na ñu ngi ñaan yàlla yàggal ci mag ñu yàlla booleel ci yoonu sëñ Touba wii. amiin yaa rabbal alamin ndax yoonu sëñ Touba dafa tàmbalee ci yërmande. wallaahi. jeexee ji ci jàngale. jeexee ji ci tabe. jeexee ji ci yiw ak tedd. Mhm. ñun yoonu sëñ Touba dañ ko tàmbalee ba léegi di ci dund di ci màgg duñ ci doyal mukk. dëgg la. cafkago loo xam ne saa yi mu xëyee rek di ci gëstu yor ku koo xam ne sëñ Touba boo ko lekkalee dalay lay nekkal. Mhm. te boo ko nekkalee ren bu déwénee bu la bu la boo ci nekkee di dox rek da gis ak doxin ni muy doxee di ànd. dëgg la moom daa mat boppam sëkk nag. wallaay wallaay. ba na maa ngi ñaan yàlla yàggal seen jàmm. amiin yaa rabbal alamin wéral leen. taxawaay yi dina rafet. amiin ak seen Tuubaa. dañu yàgg koo ci barke seen Tuubaa. amiin yaa rabbal alamin waaw maanaam daal mbégte mi sori na ba la ñu war a daanaka du ñu ko mën a taw. ndeysaan ndeysaan alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi leen teew. dëgg la dëgg la. jërëjëf kàddu yi rafet na. wallaay ndeysaan. yàlla yàlla guddal fan yu wéral cër yi. amiin amiin kooku mooy Soxna Aida mu Serigne Saliou. wallaay ndeysaan. wallaay di wëllëre nag Soxna Aida Saliou. wallaay ñoo ngi siyaare Soxna ngi siyaare baax a baax a baax. di ko ñaanal mu yàgg fi lool te mu yàgg fi lool te ànd ak wér. Soxna Aida mu Serigne Saliou kàddu yi rafet na ak mboolem ñi topp jotaay bi. wallaay ndeysaan. Serigne Saliou dafa am juróomi xeetu Serigne. kon bala ñoo ñëw ci Serigne bu matub Serigne. waaw nan lan koy doyee. Mhm. ni ko alxuraan jàngalee ak mooy kan. waaw nu njëkk ñëw na ci Sénégal yéenay woowee sëriñ yëpp. ndax dañoo bari ay turi sëriñ. moo moo tax defe naa su ma jumul juróom la. dañu wàññi ko. te jotaay bi kenn ki lay. waxtaanee bi kenn ki lay waxtaanee. kon mat naa leeral ni ñeent yi waxtaanee wu ñu. ban ak bi ci njëkk mooy Sénégal boo ki yor ay pettaawam. Mhm. wala mu yor ay ndoxam ak ay ki yëg yooyu. Mhm. bismillah mel na ni gars ñi dañoo songu ligne bi. téléspectateurs yi bismillah salaamaaleykum. aleykum salaam ñu ngi ñaan nga yokk kàddu gi. sëñ ngi leen di ziar bu baax a baax. yàlla yàlla nangu ziar ñu ngi ñaan di ñu ngi sàkku ceew nga yokk kàddu gi. Euh, dañu dañu kontaan lool ci émission ah, noo tudd ak fooy wootee. Euh, tur bi la première fois mu woote ci télé wala rajo dama ko bëgg a dëgg la. waaw damay fësal sama mbégte rek. di di di leen ñaanal yàlla na leen sëñ bi teg loxo. amiin. dé dégg nañu lool lool lool lool ci émission bi macha allah. ndeysaan ñi ngi ñaan nga yokk kàddu gi soxna si. suñu xol sedd na guyu guyu guyu macha allah. ndeysaan. waaw ndax ñun lii moo ñuy bégloo. Mhm. lii moo ñuy bégloo macha allah maa ngi wootee Kolda. ndeysaan mi ngi wootee Kolda. li li ci sama xol dafa dafa dafa dafa ëpp ba mënuma ko génne. Mhm. waaye ñu ngi leen di ñaanal daal yàlla na ngeen seen bopp yooyu yàlla na weex tàll tàll tàll macha allah. amiin yaa rabbal alamin amiin. pour ànd ak ngërëm. amiin yaa rabbal alamin macha allah dégg nañu loolu jërëjëf. jërëjëf kon mbokk moom mu ngi wootee ba Kolda. ndeysaan nee na c'est la première fois muy woote ci ab télé waaye ndeysaan nee jotaay bi daa am fu mu ko yóbbu. kon ndeysaan ñu ngi koy bëggee bu baax a baax moom waa Kolda gépp. Kolda gépp ndeysaan Serigne Saliou. waaw daal ba numéro 5 fii Sénégal. te te jotaay bi benn bi lay waxtaanee te jotaay bi benn bi lay waxtaanee. première bi ban la. numéro un bi. waaw mooy sëriñ bi gisaane. ñu koy tuddee gisaane kat. wala mm. maa mën wala voyant. Sénégal moom dañu naan sëriñ. dañ naan sëriñ. Ah, ma dem ci sëriñ ba. yaa ngi ci koñ bi di yëngal ay affaire mm-hmm. boo ñëwee ma ne la ah sa liggéey bi sa place bi. Mm-hmm. yow sa bayre sa nàngam. Mm-hmm. kooku ñu ne sëriñ bi nga laa dégg ma naan la so sowaay naan la yi am na benn sëriñ bu aay bu nekk ci koñ bi kooku moom dana la wax ba wax la nangam nag kooku mooy sëriñ numéro un kon kooku danañ ko wooyee sëriñ bismillah mbokk mi nekk ci ligne bi mbokk mi bismillah asalaamaaleykum ñu ngi ñaan nga yokk kàddu gi di dégloo ci tel bi wàññi télé bi mm-hmm. bismillah mbokk mi mel na ni mbokk moomu génn na kon kooku mooy sëriñ numéro un bi numéro de bi nag numéro de bi sëriñ Saliou mooy sëriñ bi nga xam ni moom ab sëriñ la ndax day jàngale alxuraan waaw nga xam ne sëriñu daara la nga xam ne sëriñu daara la di jàngal gone yi alxuraan jàng ba mokkal wallaay ndeysaan mbokk bi bismillah dem na mu kon ñu ngi ñaan régie bi ñu yokkal ñu téléphone bi bu baax bu ko defee ñu koy dégg fii ci plateau bi bu baax a baax. wallaay ndeysaan. Euh, ñu ngi nuyu mbokk yi mel na ni dañoo songu. dañoo songu ligne bi bu baax loolu wane ne ñu ngi topp jotaay bi te neex na leen rek te na leen wallaay nit lu ko neexul du jug mukk jël téléphone du ca woote. déedéet du ko def mukk kon ñoo ngi leen mooy sëriñu daara bi jàng ba man alxuraan di ko jàngal ay xale def lëggéey bu rëy nga xam ne loolu la xayrukum man taxallama alxuraana waaw waaw wa waxallama waxallama ki gën ci yéen yonent bi nee na mooy ki mokkal alxuraan mhm. ko ba noppi di ko jàngale di ko jàngale kon kooku mooy sëriñ numéro 2 ñun moom sëriñ lañ koy wooye sëriñ lañ koy wooye waaw sëriñu daara waaye troisième type de sëriñ mm-hmm. mooy sëriñ bi nga xam ne mm-hmm. maanaam ab conférencier la waaw waxtaankat bi conférencier bi moom ndeysaan daa mokkal alxuraan. wallaahi mokkal xista yi. Mm-hmm. mën di jàngale ab xam-xam. wallaahi waaye nekk orateur nag. wallaahi a wax lool éloquent ni sëñ Saliou Samb. wallaahi ndeysaan man jekk aaye yi nag. wallaahi naan sëriñ bi. sëñ Saliou sëñ diw. ah ñun ah, sëñ diw day tubaarkàlla tubaarkàlla li nga ni man day sëñ diw ay sawub sëriñ wallaay ndax lan moom na muy def alxuraan jeeg ni mu mënee jàngale mm-hmm. nga wóor ne mooy sëriñ bi mm-hmm. kooku sëriñ lañ koy wooye moom moom sëriñ lañ koy wooye ah, sëriñ numéro 4 bi nag waaw mooy diw sëriñ la mm-hmm. ñu ne lu tax nga ni bàyyam sëriñ la mooy ji ki nga xam ne da koo doon. waaw da koo doon. ko doonoon maama ma ko doonoon. baayam jël ko ci maam baayam jël ko ci maamam. mu jëlee ko ci baayam. mu jël ko ci baayam. day euh, moo tax kooku day amub sant wu tedd. bu ne ah. diw ñu la sant ñu ne ah kooku surtout diw la. ndax borom doomi diw mm-hmm. borom barke. Mm-hmm. kooku mooy quatrième type de sëriñ. Mm-hmm. bu Sénégal wala ñaan doomi sëriñ diw. doomi sëriñ kon doomi sëriñ la doon. kon boobu mooy quatrième groupe bi Sénégal yi wooyee sëriñ. mu ngoog waaye cinquième type de sëriñ bi nag. cinquième type cinquième boobu nag mooy cheikhul murabbi guide spirituel mooy ki nga xam ni ab hmm. sëriñ la bu yóbbu ci yàlla mooy hmm. guide spirituel kooku mooy ki donn yonent bi ci maqaam kooku daa donn leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax muridu tarbiya ah. wa xayra man raaqal muraadu tarqiya muraadu tarqiya kokkan la mu ne ahmaduna al muxtaaru ah, sallallahu alayhi wa salliman wa man wala wallaay sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa nee na sëriñ bu mat sëriñ ba ah. sayxul murabbi ba hmm. sayxu tarbiya ba nga xam ne ko ko doona de ci moom nga ko doon ñu ne ko kooku kana xanaa suñ sëriñ si la mhm. mu ci moom rek kooku mooy ahmaduna al muxtaar mooy muhammadu rasulullah sallallahu léegi sëriñ boobu loo koy doyee mooy da nga da ngay da ngay jàpp ci moom ngir àgg ci yàlla kon sëriñ boobu yi la tax ñu di ko tànn waaw mooy wut yàlla yàlla te wut yàlla te kooku yàllaa ko tànn yàllaa ko tànn yàllaa ko tànn ni mu tànn yonent bi la ko tànne aaya la de alxuraan dani topp gi nga may topp man mm-hmm. yàlla noonu ngay toppee yonent bi mm-hmm. waaye noonu ngay toppe sëriñ boobu mm-hmm. loolu mooy atihullaaha wa atihu rasula wa atihu rasula wa ulil amri wa ulil amri minkum xoolal atihullaaha toppal yàlla wa atihu rasula topp leen yonent bi wa ulil amri ak ki yor ndigal ak ki yor ndigal ki yor ndigal xanaa kooku moom moom yaayu li ci naa amoon ittaqullaha wabtahu ilayhil wasilata wajahido fi sabilihi laxallakum tuflixuuna tuflixuuna yàlla nee na wut leen wasila kooku mooy al wasila al wasila kooku ngay jokk ci moom àgg ci yàlla mhm. loolu moo waral inna allazina yu bàyyi xoon naka innama yu bàyyi xoon allaha yaddullahi fawqa aydihim fa man fa innama yankusu ala nafsihi wa man nawfi bima haahada alayhi llah ajran hasima ajran hasima kooka moom loolu moo tax yonent bi mhm. keroog bi saxaba yi di jaayanteeg moom ca Udaybiya mhm. ñoom ñu tàllal seen loxo yonent bi tàllal loxom teg ko ci seen kaw loxo ba ñëpp jaayante ba pare yàlla ne leen kan ngeen jaayanteel ñu ne ko ah xanaa yàlla ne ban loxo teg woon seen kaw loxo ñu ne ko xanaa loxo yonent bi yàlla ne déedéet yadullaahi loxob yàlla ay aydihim moo tegu ci seen kaw moo tegu ci kaw seen loxo ndax sëriñ boobu boo ko jàppee mhm. boo eggee ci moom egg nga ci yàlla waaw moo tax mu ne wattabi sabila man anaaba ilayya summa ilayya marjihukum fa unabbiukum bi maa kuntum taxmaluun bi maa kuntum taxmaluun mhm. yàlla nee na wattabi toppal nga ni ko mhm. koy topp mu ne sabila yoon wi nga ni ko yoonu marché wala mu ne déedéet sabila yoon wi wan yoon mu ne man anaaba ilayya yoon ki lay indi ci man mhm. kon nee na man man nit la mhm. foofu sax ñiy wax wasila du nit mhm. foofu lañ daanoo wallaahi ña xam am na ñoo xamante ni nee nañ la wasila du doon nit waaw mooy sëriñ wasaa'il moom mën naa doon jaamu yàlla yi ak def lu baax ak waaw waaw mën naa doon ay julli ay naafi la hmm. waaye du doon nit nit hmm. du doon sëriñ ngay ajaar ci moom di yegg ci yàlla foofu lañ daanoo alxuraan nee na wa hmm. tabi toppal sabila man maa anaba kon da ngay xam ne sëriñ du doon nit ko ab jukki lay doon ay wérd lay doon ainsi de suite ndax man ak maa xam nga ni bokkuñ taxawaay xaaxil ak xaaxil du benn su ma la bëggoon wax kii kan la nit laay wax ah, waaw lii lan la mbir laay wax mbir ngay wax fii fan la bërëb laay wax mhm. ñii ñan la ay nit laay wax ay nit ngay wax kon man anaaba ak maa anaaba bokkul du benn toppal yoonu li lay indi ci man ak mhm. toppal yoonu ki lay indi du benn du benn yàlla ne toppal yoonu ki lay indi ci man mhm. kon keroog yàlla wane na ni am na yoon wu jëm ci moom te ab sëriñ ñu koy jiite te kooku nit xanaa loola kay la ko dëggal bokk na ci kaaf bi mu ne man yahdillaahu fa huwa al muhtadi hmm. fa huwa al muhtadi waaye wa man yuddilil hmm. falan tajida lahu waliyan mursidan waliyan mursidan man yàlla ku ma gindi nga gindi ko waaw waaye ku ma nar a réeral du ma la boolek kilifa gu lay jubal. du la boole kilifa gu lay jubal. kon kilifa gu lay jubal jëmm lay doon. te moo ne yàlla lay jubalaate de. waaw wallaahi kon mënoon na laa jubal directement. Mhm. waaye kilifa gu jubal. gu lay wala yàlla comme nee na yonent bi innaka la tahdi man ahbabta. walakin allah yahdi man wallaahi. kon léegi lu ko tee. mu mhm. gindale directement. wala ba tëgg na ko wa innaka la ilaa siraatil mustaqim nga xam ne foofu def na yonent bi wasila na ko yow moom da gindee kon maay jaar ci yow di gindee di gindee daa kon wa intuti hoohu tahtadu tahtadu su ngeen su ngeen su ngeen su ngeen ko toppee mm-hmm. rek daal di gindi ko daal di gindi ko fa kon gis nga ni mm-hmm. yàllaa ngi jàngale kon sëriñ bu mat sëriñ boobu yi yàlla yemu ci de mm-hmm. boo demee ci addisu xut si nga dem ci imaamu Nawawi ca ca ca ca ca ca ca bu mag ba mhm. riyaadu saalihiin mhm. abi hurayrata nettali ko mhm. yàlla di wax ci làmm ju yonent bi mooy addiisul qudsi wax yàlla la yonent bi di ko traduire wa maa yazaalu abdi mhm. yataxarrabu ilayya mhm. bin nawaafili wallaahi xataa uhibbahu mhm. fa idaa ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi wallaahi yasmahu bihi wallaahi wa basarahu allazi yubsiru biha wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamsi biha wa in saalani ahtaytuhu wallaahi abi hurayrata moo ko solo boo demee ci ñëw na ci saxiix bi buxaari mm. indi na ko mu muslim indi na ko yàlla mm. bi mm. am na ci nit ñi koo xam ni da ngeen a nuróoy nopp waaye bokku leen Mm-hmm. daf may bëgg di ma jege-jegelu waaw di def li ma ko sant mm-hmm. bay def lu ma ko santu bëgg ma sopp ko yàlla nee na fa isa ahbabtuhu su ma ko soppee mm-hmm. kuntu samhahu lazi nee na dama koy bàyyee ak ay bëtam te doon ak gisam maay gis ci ay bëtam maay gis ci bët yi te gisuk yàlla amul fu mu yem boo déggee yàlla tudd samih daan ne bachir gis gaa tax ne bachir kooku lépp lay gis ci sa wallaahi nga xam ne gisam ba bay bu dara waaye bachir wallaahi yàlla ne maa koy bàyyee ak ay noppam ba noppee doonuk déggam doonuk te <laughs> wa samihul alim boo boo boo gisee yàlla tudd Basir. Mm-hmm. ak Samih tax ah mm-hmm. Samih. dégg dégg gaa tax nañ ma baal mm-hmm. Basir gis gaa tax yàlla ne Basir maay doon gisam Samih maay doon ak ak déggam waaye yàlla ne bu la nuyoo maa la nuyu maa ne ci ay loxoom maa ne ci ay loxoom maa cay jàpp looloo waral yadullaahi foofu ay kon yonent bi rek ay sëriñ yàlla ne maa ne ci ay jéegoom muy dox man mii maay dox man nii maay dox kon kooku la ñuy woowee cheikhul murabbi sëriñ bu mat sëriñ bi ñun nag quatre taxu ñoo jóg mhm. waaye sëriñ bu mat sëriñ bay yóbboo ci yàlla mhm. moo tax sëñ Tuubaa ne quiconque n'a été formé mhm. par un maître spirituel rencontrera des épreuves terribles car celui qui n'a de guide valable Satan se chargera de le diriger partout où il passe dans les voies de la perdition sëriñ boobu ci programme yàlla ak yonent bi la inscrire ci la inscrire kon ñëw fi ngir di la tax am dépense déedéet fi ngir di la tere dugg kaso. déedéet sëriñ boobu ñëw fi ngir di la joxi pàkk ci àddina ngay tabax. déedéet ni yàlla ne damay jënd seen kër yi. Mhm. seen kër yi àjjana yéen a ngi koy jëndee jaay ma seen kër yi àllaaxira mhm. jox ma seen bakkan ak seen alal ak seen lépp sëriñ boobu taxawaay boobu la taxaw. xanaa moo tax kon sëriñ Tuubaa sa wax ji jëpp mu tënk ko ci benn bayit. maa la ko wax man daane isil mu rabbi. ah laa yuriidu fil murid mhm. illa al wusula mhm. naajiyan min al marid sëriñ bu matub sëriñ ba mhm. na ngeen xam ne ñaar dong lañ koy doyee ñaar yi ku ko man kookaay sëriñ ba ku ko mënul du sëriñ ba moo ñaar yooyu yàlla mbàkke mu ne yeggale la ci yàlla ak muccal la ci saytaane yi ku ko def daal ah. sëb sëriñ lii dong lañ koy doyee kon bi nga koy wut da ngaa bëgg a mucc ci saytaane ak i pexeem te bi nga muccee ki saytaane ngay muccaale i sa bakkan ak sa bànneex ak àddina ak ci loram daal di nag am yàlla yegg ci yàlla mm. ndax ba ñuy waxub yegg ab tukki la mm. yàllaa woote ci boppam moo ne fa firru ilallah ilallah mm. inni lakum nasiru mubin yàllaa ne wa tabattali ilayhi tabtila yàllaa ne an addu ilayya ibadallah mm-hmm. inni lakum rasul amin mm-hmm. woo jaam ñëpp ñu wuy ñu dikk ci man mi nga xam ne maay seen cosaan mm-hmm. kon yàlla dafa woote tukki dox jëm ci moom waaye tukki bi nag dañoo bàyyi wër fu waay neex jaar fu waay neex dugg dañu mu indi leen nag kooku maa ko jox moyens yi mu leen mën a indee mm-hmm. alaaji Boubacar seetlu naa sax ci suutu Maayda mm-hmm. suñu borom ni sëriñ matub sëriñ boobu bii nga xam ne li nga koy doy may yàlla ak mucc ci seytaane mm-hmm. nga xam ne loo amaat ci àddina bénéfice la ba taxoon sax mag ñi boo delloo ci ñoom ma jël exemple sëñ Tuubaa Cheikh Ibrahima Fall doy na sëkk ab taalibe baawul muridiina sëñ Basiiru borom mi naan baal Xaadim Baay Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg téeréem ba dafa nettali Cheikh bi mu jébbalu ci ñibbal ga mhm. la leerale exemple li ñu doyee sëriñ li ñu doyee sëriñ waaye sëriñ Tuubaa fa la wanee li ab sëriñ di doon mhm. ndax bi mu ñëwee di jébbal dañu ko lenn na ma tax a jóg mhm. képp kuy jébbaloo ci nag bu la loolu taxut a jóg li ñu doyee sëriñ xamoo ko dëgg la tax a jug mu ne ko yegg ci yàlla ku ma yegg yeggale ci yàlla rek moo ma tax a jug kon bi nga wutul sëriñ maroog sa boroom àgg ca moom am fa ay cër. Mhm. mucc seytaane ndax ku yegg mucc nga. Mhm. moo la tax a jóg. wallaay je suis à la recherche d'un cheikh authentique. cheikh authentique. capable de faire accéder son disciple. Mhm. à la communion avec Allah. waaye déggal ko ci Tuubaa tegal. kon de nga yëg ni àddina. amee lu ma def mbaaru ngeer. mbaaru ngeer ak ni mu yombee. ak naaru ngeer ni mu yombee booba jamono nga xam ne àll bépp ay ngeer la. ah Sëñ Tuubaa ne ko mbaaru ngeer boobu li muy jàppandi jàppandi. amee lu ma la ko fi amee lu ma la ko mooy warlu lu ma la ko fi. déedéet yàlla mi ngay wut ci man. Ah. laa la war lool moo tax ab sëriñ soo jébbaloo ci moom mu xas laa jox yàlla. waaw wàccoon ak yow. moo tax laneen loo gisaat. bu moo tax bi xéewal yi wëree Seex Ibra ndax ko noobul la woon. Uh-huh. loneen la moomoon. waaw ah, kooku Sëñ Basiru <laughs> Sëñ ko wax. wallaay ndeysaan man de jaaxle naa. Mm-hmm. ndax da nga ne ko woon mbaarum ngeer la la wax ne la yëlelu la ko fi. Mm-hmm. nga ne ko soxlawu fepp kawar. yàlla dong ma leen seex. ay Seex yàlla. mu ne ko waaye li la wër lépp rek. waaw Seex Ibra sax xam nga lu mu ko njëkk a wax. yegg ci yàllaay sama yitte. mooy sama yitte. a jekku àddina. ndax booba Seex Ibra jekku na. ba ba ba lépp. les revenus annuels de Cheikh Ibra tournaient autour de francs. ca booba temps ca booba temps waaw boo demee archive nationale. wallaahi il était propriétaire de terre. Ah. à Saint-Louis. Mhm. à Ndiambour. Mhm. à Thiès. Mhm. ici à Dakar. wallaahi fii ba Lambe Naas. wallaahi fu ba ne dàq góor ñëpp. parce que wax dàq leen a sañse. le fin diplomate. wallaahi ndeysaan. waaw remarquablement. intelligent wallaahi noonu la ko tubaab bi tàggee. kon kooku jekku na yëpp. waaw waaye dana sëñ tubaab yegg ci yàlla nag léegi. mooy sama objectif. mooy sama objectif kon nañ déglu nag objectif bi tax ñuy jébbalu. di wut sëriñ kon kooku lu leer la du ami dépense. déedéet du ami kër. déedéet du ñàkk feebar. déedéet du ñàkk dugg kaso. déedéet sëriñ daal day mën a yóbbu ci yàlla. sëriñ Tuubaa ne ko yore li ma la mbaarum ngeer. waaw mu ne ko soxla ma fepp kawar. ba mu ko mayee yàlla ba gërëm ko. Hmm. mu xëy xéewal yëpp wër ko. waaw Cheikh Ibrahima nag sëriñ Basiiru ne ko. lu waral lii dangaa génn ca la nga waxoonam moo génn ca la mu waxoon. Hmm. mu ne ko génn ma ci génn ca. Hmm. waaye na nga xam ne bi ma sukkee jébbalu ba siggi sama faxasitu wóom mhm. mooy xéewal yii waaye taxu ma woon a jóg taxu ma a jóg seen bamba la ko taxoon a jóg mu tax maa jóg mooy yàlla te jox na ma ko maa la ko wax man de waaw gis nga jumla boobu nga wax Cheikh Ibra misaal ko mm. Sëñ Tuubaa ko wax ci benn benn benn jumla mm-hmm. man tawajjaha ilallaahi tabaraka wa taala ah. daane wajjaha ilayhi kullu xayri kullu xayri képp ku jug jublu yàlla ah. yiiw yi ak xéewal yëpp a njëriñ ñëpp jublu na la wa man tawajjaha ilaa xayrillaahi tawajjaha ilayhi kullu dayrin kullu dayrin képp ku jublu jublu la neen lu dul yàlla ah. lor yëpp ak yi nga ragal yëpp jublu nañ la mu des ab question mm-hmm. nu ñuy def ba jublu yàlla dañuy dem garage laaj oto bu jëm ci ah, yàlla. yàlla dox de boo fa bëggee dem man ban gaaru ceer ngay dem. benn oto ba naan aywa yàlla. Ah, pas sàngam la. Ah, xam nga amagut. benn garage bu am oto bu jëm ci yàlla dégg ko. Mhm. du ne it terrasse la dëkk. Mhm. kon laaj nañ question Sëñ Tuubaa ku jublu yàlla yiw yëpp jublu la. ku ko jubluwul lor yëpp jublu la. ñu ne ko léegi nu ñuy jubloo. mu ne wa kayfiyati tawajjuhi ila llahi tabaraka wa taala melaw ku jublu yàlla melaw yi ne jubloo yàlla ku jublu yàlla kon ñëpp ngi ne tekk di déglu mu mooy nga sàkkoo dajeeg wasiila woowee. kookee di dem ci jox ko sa bopp. yuharrifuka maa taf'al wa maa laa taf'al. Hmm. mu lay xamal li nga war a def ak li nga wërta def. fa inna fi imtisaalil awaamiri ah, wa jitinaa bi nawaahi topp ga ngay topp ay ndigalam bàyyi tereem. Uh-huh. taqabal ilayka al musaraatu ilayhi moo lay yeggale ca la nga bëgg mu yàlla. watu dabbiru ila xeyrikal xawaayiqul maanihat musal la ci nga ragal yépp ak seytaane jafe-jafe yi nga réussir nga réussir naka te réussir baa ngoog objectif baa ngoog mooy yàlla kon fi mu ne gaar gaaru gaar bay jëm ci yàlla ah. mooy wasiila bi mooy wasila bi xanaa looloo waral minallaahi ilallaahi ay na muridullaahi ay na muridullaahi kon sëñ Tuubaa loolu tax mu ne ci yàlla laa jógee ci yàlla laa jëm falaa laay dellu gaaru ceer bi jëm ci yàlla nag man la maa am ndigal li kon ma kon ñëw leen ñëw leen ñëw leen amarani rabbi bi anhu sariha bi annani ximman wa mafsahun wa malazun fa man arada al xayra fii kilti yi daari falyalus falyalus bii kon kooku leer na moom je m'en donne l'ordre de proclamer mhm. je suis l'asile le recours et le refuge mhm. quiconque veut le bonheur d'ici-bas et de mhm. l'au-delà vient se réfugier gis nga loolu mu wax daa dëpp ak da caa doon yónente bi waaw surtout maa yi la dani juróom benn ngi nii waaw kenn képp ku ne la mooy sëriñ bi matub sëriñ bi juróom-benn yëpp day daje ci moom bu ca manqué matu ko mhm. xad jaa ko minallaahi nuurun day am leer ko yonente bi wa kitaab wa kitaab nu yor xam-xamu ba mhm. mooy xam-xamu yàlla mën koo xam la mhm. waaye yahdi bihi llaahu man ittaba'a ridwaanahu subula salaamin ku ko ku ko topp mu teg la ca yoon wax woo yuxrijukum mina sulumaati ila nuur mooy quatrième bi man laa génn ci lëndëm lëndëm yi dugal la ci leer gi dugal na ci leer gi mu taccab bi ismihi nag waaye da cay am ndigalul yàlla dëgg la kon sëriñ yi da ngay am ndigal mhm. wa yax ji si moo ila salati mustaqim mooy doon yoon wu jub ba jëm fa yàlla ku ko jàpp am yàlla dëgg la moo tax ko kon maqaama yónante boobu yi lay doon mhm. kon sëriñ bu mata sëriñ mën naa matub sëriñ te du gisaane du yor pitaaw waaw mën naa matub sëriñ te du yor daara di jàngale mhm. mën naa matub sëriñ te du doon doomi sëriñ wala satub sëriñ waaw bokkul sax loolu bokkut bokkuñu yaa ngi dégg ndax yónante bi ay maam eh, du du du nàngam sëñ Tuubaa bi bi doon sëriñ du doomi sëriñ déedéet bàyyam nag mat na sëriñ ndax xutbu la mhm. xutbu la loolu waxtaan bi mën na mën na ko andi waaye taxutoon mu doon waaye taxutoon mu murit déedéet woote ak tarixa déedéet bokkutoon ni nga koy xamee mooy bi mu ko wootee bàyyam daa jébalu waaw kay ñu mhm. noonu nag kon loolu laa bëgg a wax léegi nag sëriñ Saliou euh, kon gis nga ni kon sëriñ bi doyewuñ ko ay ak mu ñuy joxe pàkk déedéet sëriñ si sëriñ bu mën a joxe pàkk nag joxe pàkk baax na ah bu mel ni sama wàcc waaw ah, Cheikh Béthio nga xam fii la jaar moom ci madinatu salaam wallahi ca mbuur ca mbuur wallahi nga xam ne sorti péage ba fa la ne wallahi kookii dañoo jibbalu mu jox ñu yàlla ba pare waaw ba pare jox ñu àddina nag loolu nag war a lululu ko la loolu du du obligation de waaw yërmande nii sëñ ba ko def captaako nii wallahi du obligation di joxee tufe waaw di joxe ay nag waaw ngay sañse di maye soxna mu mu lay mayi soxna di mayee borom kër di joxe càng ca war waaw may la borom kër jox càng ca war di ngéntee doom waaye di ngénte say doom ba noppi it di la joxe kër waa di la joxe oto loolu nag du obligation déedéet li waa ji naan Cheikh Béthio baax Cheikh Béthio xotti baal waaw moom moom daa leen di baax waaye nag gis nga boo xasee jébbalu ba am ngërëm waaw sama waa ji nag waaw kon ko yooyu xam ko yit sa lu leer la ko muy li ko am kon agsi ci moom mooy objectif am nga ko sëriñ <laughs> boobu li koy différencier mhm. mooy day am ndigal day am ndigal bokkul ak diw laa sant. déedéet bokkul ak mokkal na alxuraan di ko jàngal. déedéet bokkul ak mën naa gisaane. déedéet bokkul ak yooyu yëpp. déedéet moom yàllaa ko tànn. Mhm. moo tax addi aay bi dani atihullaaha wa atihu rasula wa ulil amri. minkum minkum ki yor ndigal ci yéen. Mhm. baatu ndigal. Mhm. ñaar yi lay ñëw ci alxuraan. Mhm. benn isnu. wala amru wala amru. Mhm. gis nga inna anzalnaahu fi laylatil xadri. wa ma adraaka ma laylatul xadri. laylatul xadri xayru min alfi shahri. tanazalul malaayikatu warruuhu fiiha bi isni bi isni rabbihim rabbihim malaayika yi dinañ wàcc. bi isni rabbihim ci seen ndigalu borom. ci seen ndigalu borom waaye gis nga allahu allazi xalaqa samaawaati wal ard. wa anzala mina samaai maan. fa axraja bihi mina samaraati rizqan lakum. wa saqara lakum fulka. li tajriya fil bahri bi amrihi bi amrihi amru googu ndigal lay firi bi kon amru day ñëw firi ndigal isnu firi ndigal mhm. amru googu ak isnu di firi ndigal mhm. loolu mooy moo moo différencier sëriñ bu mat sëriñ bi mhm. yaa ngi dégg kon gis nga ni isnu googu moo mooy ndigal day am ndigalul yàlla ci woote day am ndigalul yàlla ci woote gis nga ku amul ndigal mënoo woote mënoo woote kon sëriñ boobu faxu nga xam man nga am barke waaye du bokk am baatin booy taqalee nit ak yàlla waaw am barke daa daa daa nit daa mën a am barke ba weesu ab yonent déedéet. ab yonent mooy ku nubuwa. Mhm. su ma nee yonent sax day mel ni ku nu yónni. 124000 yi waaye nabiyu. mooy nabiyu. ku doon nabiyu. Mhm. barke fa la yem. wallaahi waaye doon nabiyu taxul nga am mursal. bu fekkee ni yónniwul la jox la ndigal rek. topp la doonagul njariñ. te nabiyu ak mursal. Mhm. benn baata ndox seen diggante. mooy baatu ndigal. alxuraan wax nag wa ma arsalna min rasulin. illa li yutaaha. bi isnillah bi isnillah. yéen nabiyu yi. 124000 ngeen. ci seen biir dama cee 313 lu ñu wuuteeg 124 mille yi mu ne ndigal. ndigal lu na lu lu lu lu mursal xam. Mhm. nabi xam na ko. wallaahi lu mursal mën. Mhm. nabi mën na ko. Mhm. lu mursal am nabi am na ko. waaye lu ñu wuute. mooy mursal daa am ndigal. yàlla nag bu ko neexee itam alaaj Boubacar. Ah. mën naa def sa wayjur euh, sëriñ def la sëriñ loolu mën naa nekk mën naa ne waaye du obligation am na yonent yi muy yónni jox leen ndigal hmm. yónni waat seen doom yónni seen i waaye am na yonent yu ko sunu doom nag mu ne yii lay samin <laughs> lay bokkul ci yëpp in am la saalim kon li ma tax a xam mooy du logique du logique de ci ci boo ma doonee sëriñ rek sama doom sëriñ lay doon force loolu mooy li day neex yàlla mu jox sa doom ndigal. Hmm. jox bàyyi ndigal. waaye du du lusik du du règle générale. déedéet du mooy sëriñ ki koy doon day am ndigalul yàlla. yàlla bu ko neexee tànn la tànn sa doom. mën na ko tànn sa sa tànn comme ko def ci Ibrahima. mu ko def la noohin. kese tànn la yow donc te du tànn sa njaboot te du tànn sa njaboot. moo tax foofu yi bëgg naa nga jàngale fii. Mm-hmm. léeg nga gis koo xam day gis sëriñ matub sëriñ mm-hmm. muy yare ak a defaree ka taqale ci yàlla mu gis ci dox ci famiyam koo xam ne day mel ni ni muy def doomi jàmbari melu ko hmm. mu ne waaye kii du dara waaye ndax li muy kii bu ko mën a def ko doomam daa fàtte nooyin daa fàtte nooyin nooyin woote na bay bëgg dee ne gars yi yàllaa fi ne mooy defaree hmm. te doom ji gëmu ko te jot naa am quatre-vingts personnes te doo bokk ci. te doo bokk ci. Seydina Lut. lee Seydina Lut gëmu ko. Seydina Nuuhin nit soxnaam gëmu ko. Seydina Nuuhin nit soxnaam gëmu ko. daraba laa masalan lil laziina kafaroo imra'ata Nuuhin. imra'ata Nuuhin wa imra'ata Luutin. kaanataa tahta abdayni. ñoom ñoom ñëpp seen i soxna gëmuñu leen. te digal yàlla kaanataa ñoo ngi nekkoon ci ron ñaari jaam ñu baax ñu mat sëkk leen. te gëmuñu leen. faxaanataahumaa. kon yow sëriñ bi soxnaam ñàkk koo gëm waaw wala doomam faalewu ko waaw teewu koo doonub sëriñ déedéet yow ndattal ba mu wóor la ni mooy waajal mooy waajal way saaxdal maqruuru aw saaxakal xada ila seexi xaqim fi xaqiqati wa tabbih li muraadihi wa dah kullama min xablu kuntatu kuntatu kon sëñ Saliou moo ñëw ci baatum ndigal li loolu la ñuy tëjee ndax mel na ni jotaay bi xaw naa yegg ci cat li wallaay wallaay baatu isnu googu waaw mooy ndigal lii def ab sëriñ sëriñ moo tax diggante nabi ak mursal wallaay yàlla ne léegi nag bu fekkoon am na ku mën a woote te amul ndigal ñu ne waa mu a yonent bi lay doon ab yonent ab yonent lay doon waaye ba ci yonent yàlla Muhammad man yàlla maa maa maa déclaré ndigalam mooy inna arsalnaaka shahidan wa mubashiran wa nazira wa daahiyan ilallahi bi isnihi wa siraja munira wallahi kon gis nga baatu ndigal mënta ñàkk mënta ñàkk yàlla ni wa atihulaaha wa atihu rasulahu wa ulil amri kon topp leen ki yor ndigal yonent bi ne ittaqullaha ah. wa salu xamsakum mhm. wa suumu shahrakum mhm. wa addu zakata amwalikum tayyibatan biha anfusikum mhm. wa atihu sa amrikum wallahi asaka leen añ leen màkka waaye wax bu leen fàtte at yi mu topp kat mhm. mu ne za amrikum sëriñ bi ki yor ndigal li kon sëriñ boobu il est particulier kooku la ñuy wax cheikhul murabbi mooy yar sag ruu mhm. wa yar xaa di ko yar mhm. ilallaahi di ko taqaleeg yàlla kooku doyewuñ ko ceeb doyewuñ ko ceeb bu niin déedéet kenn wu ko oto yu rafet déedéet loolu nañ ci bàyyiwaat suñu xel léegi da gis kuy jàng xasida sax ñu naan xasida yi teral na ko nu ko teral la naan gis nga jox na ko ay gis nga oto bi muy war gis nga oto bi muy war ah. loolu du teraa ngay xasida xasida lim mën weesu na loolu wallaahi dégg nga sëñ Tuubaa ne tuwasilu aqlaami ilallaahi bila qalwati wallaahu am xaa loolooy xasida yi mooy da lay sa borom mm-hmm. ngay seexlu lu bon di bëgg lu baax yow sa bopp yëg ni xasida yaa ngi lay yar waaye du oto bu rafet de wallaahi déedéet kër yu rafet seexluwul kenn. Mhm. loo ci mën a am te gëm yàlla am na ku ne yàlla doo yàlla te mënu ko pële. wallaahi ko kon yàlla fa nga koy nattee. Mhm. ndax sëriñ bi mat sëriñ mooy. Mhm. da lay taqale yàlla da lay taqale yàlla. sëñ Saliou looloo tax sëriñ eh, yent bi ne. man ataaxa nii. faxat ataa allah képp ku ma topp topp nga yàlla. topp nga yàlla ndax ma yutihi rasula faxat ataa allah. wallaahi waaye wa man xasaa nii. faxat xasaa allah ku ma réeré réeré nga yàlla. ñu ne ko waaw ak mu ne man yutihil amira amira ku topp sëriñ bi ki yor ndigal li kon sëriñ boobu da koy topp ngir topp yonent bi wallaahi waaye waman xasaan yi képp ku ma réere mm-hmm. mm-hmm. faxat xas waman xasaal amira mm-hmm. ku réere ki yor ndigal ñu naa mu ne faxat xasaan yi réere nga ma man yonent bi wallaahi wallaahi kon gis nga wallaahi wax nga dëgg de moo tax sëñ Tuubaa bi mu ñëwee waaw balaa muy wax kenn dara dañu baatu amru googu waaw yonent bi wax laa lay njëkk woon naa ko amarani rabbi rabbi fasnax bi maa tuumur gam jotoon xaddiimahoo ah. tafsiirahoo bi fas dayi mhm. yeesalaat na ko ci man ci man loolu sëriñ bi nag xam ne loolu mooy sëriñ boobu nag mhm. rik waay gars yi mhm. nanu xam ni doyewuñ ko dépense bu doy sëriñ ba nag mën naa defi xéewal nga topp ko lépp yi baax waaye taxul de. Mhm. ba tax na nu ñu góorgóorluwaat ci ak taal. masaali ko jëlaat nee na eh, loola sëriñ bi wan lu dut yàlla. Hmm. bàyyi ko fa ba muy tànn ba muy jàngee nu nuy tànnee. Ah. bu leen tànn borom alal bu leen tànn nag bu leen tànn ci lii moom ak nu hmm. hmm. ah. a ñu jàpp ci sunna rek. ne bi an yulaazima hmm. mutihan laa yamin hmm. fii zahirin wa baatinin anis sabil anis sabil da ngay topp sëriñ bu ne ci yoon wi wallaahi waxul da topp sëriñ buy niinal sa ceeb <laughs> waxul da topp sëriñ buy joxe kër waaye da topp sëriñ boo xam ne fii zahirin ci sayit wa baatinin ak ci baatin mhm. ani sabil du wuute mukk ak yoon yoon wax kookoy sëriñ na salli ah. wa alihi wa sallim bi lay mooy ka ne ci yoon di ca kon logique mhm. seen alal ak seen doom ak seen i kër yonent bi nefi mhm. logique boobu la sëriñ bu nekk moo tax nga di ko addi yàlla kon nag bu fekkee yow ab taalibe nga te xam li nga doon. bul am complexe ci li ngay def. déedéet yow góorgóorlu waatal bu baax. Mhm. da nga fexe nag ba sëriñ bi nga jàpp namat waa ji. namat waa nay waa ji rek kon nag nañu góorgóorluwaat mbir mu ne. Mhm. maanaam bu ñu say dugg di di ko topp ñu xam lu tax ñu koy topp. lu ñu koy topp. te bàyyi raisonnement rek. boo xam ne mm-hmm. ci wàllu àddina la. Mm-hmm. léeg-léeg nga dégg ku naan la yow topp sëriñ sëriñ ba ay doomam nekk ñu fi yóbbu na leen bitim réew yow mm-hmm. yaa fi nekk di joxe addiya sëriñ bi bu dee mattam sëriñ. bu ko doomam joxee addiya jariñu su ko doomam joxul addiya doom ja du jariñ. yow miy joxe addiya di nga jariñu. te ku topp sëriñ matub sëriñ itam. Uh-huh. yow moom da nga ko xam boo xamee objectif sëriñ. mu ngoog di nga xam fam la jëlee. di nga xam fi mu la indi. moo lay tax a rafet jot ca fam la jëmee. ko wax ko yokk xam nga ko ku yëkkuwul xam nga ko dëgg la ku defaru xam nga ko ku defarul xam nga ko la ku seexlu lu bon loo bëggoon hmm. xam nga ko ku ko seexlugul xam nga ko hmm. ku ne mën ngaa àtte sa bopp balaa xalaa na si basira hmm. kon kenn ku nekk nga àndal kam doon kenn du la ko waa yaa koy xam a xam nga bu dee waaj a xam nga bu dul waaj xam nga kon nag wax jàngoog <laughs> wallaahi moo tax Serigne Saliou ñoo ngi jéggalu jotaay bi yëpp nag. wallaay wallaay ci xam ne ay ndongo daara rek. doon wax wallaay wallaay. yoo xam ne tubaarkàlla. Euh, wallaay jublu gi di jublu defar. wallaay ak waxtaan ak téléspectateurs yi ci thème bi nga xam ni. wallaay ñoom ñoo ko tànnaloon seen bopp. Mm-hmm. waaye mel na ni tey nag mbokk yi song nañ ligne bi lool. waaw mbokk yi nag ndeysaan. am na ci sax ñoo xam ne bëggoon nañoo dugg waaye jotuñoo dugg. xataay bee tax mënuñoo agsi waaye ñoo ngi jaajëfal ñëpp. ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. xam ne nu toog ñoom lañ fi toogal. ñoom rek yéen rek lañ fi toogal. di wax ak ñoo xam ne ñi lay diglu ñoo la gën a xam ngay wax. Ah, gën la koo comprendre waaw waaw ah, na ngeen xam ne seeni donga lan rek lu ci lu ci dégg ngeen jubantil lu ko rek suñu yéene mooy xam na ne ñëpp mun noo toogandoo di wax mm-hmm. eh, nu ñëw toogal jotaay bi di jotaay xam naa ko la di ko waxtaane waa Régie tamit waaw loolu it xam naa waa Régie bi dinañ ñu wutal porox boo xam ne waa bitim réew ci lañuy di jaar. wallaahi maanaam ngir di dugg ci jotaay bi. wallaahi wallaahi ñu leen di jaajëfal waaye sëñ Saliou Babacar Samb. wallaay sant rek. Babacar Samb sant rek. ma nga fële ci Atlanta. Babacar Samb moom. wallahi ni muy toppee jotaay bi. Hmm. ak ni mu koy partagé. moom xanaa da ngay jàpp ni moom loolu rek lay da da ngay defe ne nekkatul ci dara ak ay iPhone. 11 eh, Pro Max. du bul wàññi dara ah, na ko yàlla dolli. yàlla na ko yàlla dolli dolli xéewal yàlla ko yàlla dolli ko barke te ak ñiy def xéewal ñëpp ak ñiy topp jotaay bi yëpp ak ñiy yéenee xéewal ak na réew ñëpp ami xéewal rek <laughs> wallaay kon nag Serigne Saliou maa ngi lay maa ngi lay jottali nag nuyoo euh, Oustaz Maodo Faye wallaay mu baax ma Oustaz da leen a bëgg lool ndeysaan moom jotaay yi day leen di ko ci raw waaye waxuma la dara waaye Maodo mhm. am na niveau intellectuel boo xam ne wallaahi boo jaxasoo moom nga eh. déggante ak moom Maodo boo jaxasoo wut ak moom doo xam niveau xam-xamam ku yàlla dimbali la ah dafa am ouverture xam nga Sénégal dañoo am ay kàngam yoo xam xam ni seen daraja duñ ko xam wallaay ndax dañ leen di miin wallaay wallaay ndax dañ leen di miin Sénégal loolu mooy problème bi wallaay ndeysaan de moom mara di taal day mel ne ba la ñu laa jéem a xam rek mhm. moom mu béy wéy mbuus wallaay waaye yàlla bu mu daal ci moo da yàlla nu yeex xam yàlla na nu yeex xam <laughs> ñoo ngi jaale waale Sénégal gépp Oustaz Ahmed Ba wallaay wallaay Baye Niass mu baax mi borom xam-xam ko sunu borom yeesalal yërmande waaye fa suuf ci kawam te xaaral ko ci àjjana yi gën a kawe wane la ko sëriñam maanaam Mawlana Cheikh Ibrahima ya ah, ko yàlla def ah, waaye Oustaz Maodo maa ngi koy fayum nuyoo waaw Oustaz Maodo te di ko joxum ngi topp jotaay te di ko bégee lool ndeysaan walla ñu ngi koy nuyu bu baax moom itam yàlla dolli wér ah, kon nag mbokk yi jotaay baa ngoog ak si nañ fi ñu war a yëkkatee jotaay bi ñu leen di jox rendez insha allah mhm. alxamis bii di ñëw bu soobee mhm. yàlla wallaahi kon nag wa axiru dahwaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu wa